our life.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 mbokk yi baaxu saa su ne di teewlu seen uh, jotaayug bi ñu jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall Jazbul Murid ñu ngi leen di nuyu di leen nuyoo fii si Istanbul Touba Turquie di leen ziar bu baax a baax tàmbalee si ziar yi ak ñaan yi Cheikh mun Muntaka mi uh, toog jotaay Serigne Touba Xaadim Rasul sunu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér uh, di ñaanal ak ziar Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda Fall mi toog jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd Euh, di beral nuyoo ak ziar Serigne Cheikh Mourda Fall sunu yaakaar tey ak ëllëg di ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd wér <clears throat> mbokk yi kon tey di bëgg lool jotaay ko bul Mouride ni ñu ko defee daanaka fépp si euh, biir Europe wala ci àdduna bi teew fii tamit ci Touba Turquie ci Istanbul fekk fi mbokki taalibe yi nga xay ne ñoo bokk pas-pas yi Cheikhul Khadim euh, ngir nag amal fi jotaay bi ànd kaak sunu jëwriñ Serigne Mamour Ndaw Baye Fall waaye fas yéene ko ànd ak ay boroomi xam-xam di ziar bu baax a baax Serigne Khadim Niang mi nga xamante ni euh, sët la euh, si Serigne euh, Mot Mout Fa Jama Niang di ko ziar bu baax a baax di ñaan sunu borom defal ko taw feex di ziar bu baax a baax tamit ki nga xamante mooy Serigne Ngagne ñaŋ di tout tànk macha allah waaye di gëstukat ci maam Cheikh Ibrahima Fall fekk ko fii ci Touba Istanbul di ko ziar bu baax a baax waaye xam ngeen ni fas yéene ko ànd ak. Euh, ñi nga xam ne yaa sunu borom dafa leen tawféexal ñuy euh, tudd ñuy jàng xasaayid euh, fekk leen nag fekk leen fii ci ci kër sëriñ Touba gi si Istanbul di Serigne Mouhamadou Jong mu baax mii di ko ziar bu baax a baax waaye suñ ko waxee xel yëpp dem tamit si jërëjëfe borom Touba kase di ko ziar bu baax a baax di sunu jëwrin di sunu xarit wax dëgg yàlla ñu wokk pas-pas di ko ziar bu baax a baax. waaye it fas yéene ñoo ànd si euh, jotaay bi ak Serigne Abdou Lahad Thioune moom it euh, di jàngatu xasaay di fii si barab bi euh, kër Serigne tubaa gi nga xëy ni suñu jëlee suñu nuyoo ñun waa Jazbul Murid teg ko ci loxol jëwriñu kër Serigne Touba gi di bàyyam di géy day yóbbaale mboolem mbokk yi di beral nuyoo ak ziar Baye Ansu mi nga xamante ne moom la ñu fekk si kër gi te mu bokk si jëwriñ yi kon nag di leen ziar bu baax a baax te di leen ndokkale it ci bis bu màgg bii nga xamante ni ñu ngi ko doon def euh, bërki démb jagleel ko maam Cheikh Ibrahima Fall ñu teew fii ci ndigaluk euh, xalif général des bay Fall ngir ànd ak ñoom liggéey bu màgg bii euh, liggéey boobu nag bu ñu ci tuddee jëwriñ Serigne Moox Ndiaye mu yóbbaale mboole mbokk yi nga xamante ni ñoom lay àndaloon ci liggéey boobu kon fas yéene incha allah mbokk yi waxtaanee sunu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ci seen émission Jazboul Mouride fii si Touba Istanbul sëriñ Mamour Ndao salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Alioune Badara Ndim aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahir rahmanir rahim maa balaayi wa maa amradi wa biridatan qalbi amraadi wa anzir ara xalxa wa rasaaya wa jinna wa seytaana wal balaaya gannaaw bu ñu santee sunu borom eh, julli ci yonentam bu tedd bi ñu ngi ñaanal sunu yaakaar Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te wér di sàkku ci mbooleem jullit ñëpp ñu ñaanal ko ba lépp lu mu naanal Seexul Xaddim mu yeggale ko ba sumb yeneen i naal waaye di ko ñaanal baax sunu jàmbaar ji di sëriñ di Fall moom sëñ Modou Fall Mbende wuutu tey maam Cheikh Ibrahima Fall baay bi muridina di ñaan sunu borom mu doon ko yàgg ak wér bu baax a baax eh, di ziar bu baax a baax nag mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Istanbul ci liggéey bu tedd bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye jaarale ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mourideen la mi nga xam ne mooy yoon wu ñu Serigne Touba joxañoon di sant bu baax a baax nag Serigne Khadim ñang ñu fi fekk di sëtu sëñ Modou Fadiama sëñ Modou Fadiama maam Cheikh Ibrahima faal di woon lenn te lu baree baree bari feeñ ci seen diggante tey ñu fekk ko fi mu borom xam-xam bu mag di jàmbaar nag lool di siyaar bu baax a baax a baax sëñ Ngañ di siyaar sëñ Mohamed ci seen teewaay tey jii ci jotaay bi ndax ni ñu ko waxee saa su nekk rek fépp fuñ dem ci aduna bi rek am yéeni Serigne Alioune Badara ngir yaatal liggéey man Cheikh Ibrahima Fall ndax loolu moy ndigal li nga xamne ne Serigne Cheikh jëm ci 2014 ba émission bu Mouride tàmbali loolu lañu santone ngir mu yaatu mën a daj àddina bépp te defe na ne ñu ko défé ci aduna bi yëpp noonu lañ ñëwee ba fi ci Turquie tam nga xamne dëkk la bo xamanteni bi dëkk bu bari jeexital la dëkk bu bari taarix la te du ñàkk yeneen jotaay yi ci seen kanam inshallah ñu fas ko ànd yéen ci lépp loo xamanteni bi rek ay barab la yoo xamante ne bii ay barabu ziar ay barab yoo xamante ne bii barab yu am ay jaar-jaar ci yonent fi jaar yëpp ma ci ki yàlla yónni ci noonu mooy yonent bi sallallahu alayhi Euh, te itam mboolem ñu baax ñi fi jaar ñëpp rek loolu lépp incha allah dinañ ci dikk ak ci jotaay di sant bu baax di ñaanal Cheikh Mahamadou Mountakha ndax ñi ngi wax nañu sax fii ñëw na fi bokk na ci dëkk yi mujj ñëw euh, dëkk bi te yaakaar naa saal bi ñu doon defee waxtaan bi sax ñu ko tuddee saalu Cheikh Mahamadou Mountakha ndax foofu lañ ko dalaloon loolu la ñu murit yi wax loolu sant nañ ci bu baax sëñ Aliou Badara kon dina su ko defee ñu tàmbali jotaay bi waaye nga dalal gan yi nga xam ne ñoom lañ seqal waxtaan wi euh, tey nag niñ ko waxee woon rek waxtaane ku tedd ki la waaye waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall lépp rek tegu ci njàngaleem ak i jaar-jaaram noonu lañ ko sàkkoo incha allah bu ci yàlla àndee yàlla nañu ci dëkk ak eh, taw feexi kookee jërëjëf eh, jëwriñ jërëjëf Serigne Mamadou Ndaw Baye Fall li nga ko waxee ñu fas yéene kon eh, dalal jëwriñ yi borom xam-xam yi nga xamante ne ñoom lañu fekk fii si Touba Istanbul ci Turquie ngir fas yéene kon waxtaan ak ñoom Euh, kon nak euh, jox serigne euh, khadim ñang mu baax mi niñ ko waxe di sepp ci serigne modou fa jama ñang digëm ak mam cheikh ibrahima fall xam nga ni lenn la won niñ ko waxe jox ko rek mu nuyo inshallah ñu jall ci mbokk yi ci dess assalamu alaykum serigne serigne khadim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله رب إسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يخفو قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الهادي المكين وعلى آله وصحبه وخديمه وخديم خديمه المريد أكبر مام شيخ إبراهيم فال لامب باب المريدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki mbokki talibé yi mbokki Touba Istanbul yépp ma ngi leen nuyu yéen ñëpp di jiital si nuyoo boobu suñu yaakaar tey ak ëllëg ñi sëriñ Muntaqa Xaadimu rasul di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér te may ko gudd fan ak euh, sëriñ Hamdi Ndenda Fall mi nga xam ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall fii si kaw suuf muy jàmbaar joo xam ne ñëpp xam nañ ne fa waajuram wu rek ak maamam ju baax ji tegoon tànkam fa te tànkam mu indi ay ay ay surprise yu bëri si yoonu murit ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér si barke Sëñ Tuubaa du nuyu Serigne Mamour Ndaw mi nga xam ne moo nekk suñu pegg di suñu xarit di nit ku baax di nit ku am yar te am taalibi te ñu yàgg lool ma ak moom du nuyu Serigne Alioune Badara Ndim jàmbaar la joo xam ne ci liggéeyal Seex ba ñëpp xam nañ ko moom tamit ni may waxee sëñ Mamour noonu laay waxee si moom ku am taalibi ku am yar te dal. di nuyu suñ seex ak sa doomu baay ji ak mbooleem taalibe yi nga xam ne ñu ngi fi nga jiital suñu yoo boobu sëriñ am ni mi nga xam ne mooy jëwriñ ji fii si kër sëñ Tuubaa di nit ku baax ak sëñ Ansu ak mbooleem taalibe yi ñu fekk yëpp di nuyu tamit ñi nga xam ne bi ma ñëwee si dëkk bi ñoo ma dal ñuy samay mbokk taalibe yu baax ñoo ma defal lépp muy waa kër muy Baay Faal yi nga xam ne ñoo dëkk te faati ah, sëñ kër jiite leen ak ñoom sëñ làmp ak ñoom ñëpp mu di leen nuyu ak ñoom suñu seex euh, dëkk bi sonn ma fi dara lépp bu ma ñëwee ñoo yor sama lépp di ma taxaw taxaw gu ma sëkk ñu ay nit ñu baax yàgguma fi waaye mel naa ne ko fi amee ati at ndax Touba Istanbul ñëpp mu bëgg ñëpp ma fonk ñëpp ma teral kon ñoom wàccoon nañu man waaye man maa des si ñoom waaye nag bàyyi naa leen Serigne Touba mi nga xam ne moom lañ bokk yaakaar ni ñëpp ak maam Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Xaadim jërëjëf si kàddu yooyu nga xëy ni kàddu ko nuyoo la incha allah ñu ngi ñëw léegi dugg ci lef yi fas yéene yaatal bu baax a baax euh, ci sunu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina sëñ Ngañ ñang bala ñu ngi lay jox kàddu gi yow it di la ziar bu baax a baax nga nuyoog mbokki taalibe yi lay seetaan. xalilullahi daliilullaahi muniirullaahi siraajullaahi siraajul awliyaau siraajul asfiyaau nuurul xaq baabullaahi baabul xulóomi baabul jannati baabul muridina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonentaam bu tedd ba waaw di sant Sëriñ Tuubaa nag waaye di sargal Cheikh Ibrahim Fall mi nga xam ne mel ah, di ñaanal nag Cheikh muntakam ya mu yàgg fi lool ah, ndax nag day jàmbaar tam ngi dox nag won nañu yoon wi waaye la ñuy Serigne Amdi mustafa, mi nga xam ne tey moo fi Cheikh Ibrahim Fall Baal Mouridina di ko ñaanal bu baax a baax waaye nag di ñaanal bu baax a baax Serigne Cheikh Fall jëmb sa borom yokk ay leeram bu baax a baax te taas ñu ci barkeem ndax liggéeyu Cheikh Rafal bi bu tollee fii da cee bay waar wu am solo solo waaye di siyaar bu baax a baax nag sunu papa ji nga xam ne moom la dendal waaw suñu xaadim ñang nga xam ne ndeysaan moom daysul lépp waaye di siyaar bu baax a baax sëriñ Mamoun Ndaw waaye di am tawféex nag di ànd ak moom jotaay bi ndax ku yàgg a topp la koo xam ne dañ koo yàgg a topp ngir liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci Cheikh Ibrahima Fall waaye noonu la ñuy siyaare nag sëriñ Aline Badara Ndim moom it moom noonu la demee ci suñu jëmm ji du ko yaatu nag waaye di siyaar jëriñ Moodu bu baax a baax nga xam ne noo bokk nekk fii waaye di siyaar nag fa ma jógee muy Touba Antalya di siyaar bu baax a baax jëriñ Baye Amdi di ko ñaanal bu baax a baax signalin bële rek. jërëjëf euh, jërëjëf sëñ jërëjëf sëñ Ngañ kon euh, sëñ Moodu yow moom dama bëgg sëkk nuyoo maanaam ànd ak euh, ubbi jotaay bi noo ñu ko ubbilee rek incha allah ñu mën a nag tàmbali si laf yi di ziar bu baax a baax nag sëñ Mamour. Euh, sëñ Manel Fall ca Washington ca New York xam nga ca ca ca ca Amérique ca Washington moom euh, Serigne Saliou Fall moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall di jàmbaar nga xamante ni fépp fu mu nekk maamam rek la fa nekkal xam ngeen ni Pastef euh, mën nañ see joxe benn exemple bu ndaw rek bu mujj mooy maanaam daggee billet ci Amérique ngir ñëw fekk bisu zikrullah bi ca Touba daal di daggaat billet dellu. ñu ngi koy ziar bu baax a baax bokk si murid yi nga xamante ni yàgg nañoo soññee eh, ci sunu teewaay fii ci Istanbul ndax nag waaw lii lépp mooma sëñ Mamour ndax ndax ndax naw na lool eh, taalibe ak jotaayu mbooloo mi nga xamante ni ñu ngi liggéeyal fii Serigne Touba di fi liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall kon sëñ Manel ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla kon eh, sëñ Modou kàddu gaa ngi noonu boo nuyoo rek ubbil ñu jotaay bi ñu ngi lay ziar bu baax. ñoo ngi ziare bu baax sëñ Aline Badara. ni di wax assalamu alaykum bokki talibi ni setan yep di len siyaare te di leen ñaanal tawfiq borom Touba waye di siyaare ak ñaanal Cheikh Mamadul muntaha xalifatullahi di khalifa borom Touba tay ci kaw suuf di ko ñaanal mu yag fi lol tawir lepp lu mu naan liggéeyal ko borom Touba mu defee ko nim ko bëggee te ko ak mom barké xassay ni waye di ñaanal seigne Modou Fall Mbenda seigne borom yagal ko fi lol mom itam tawiral ko te ab ligéeyam barké alcorane waaye di siyaare bu baax sama sëriñ sëriñ Abo Mbacke moom sëñ Modou Rokhaya moom sëñ Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta ca Daaru Salaam di ko siyaare di ko ñaanal moom tamit tawféexu borom Touba bu baax a baax waaye di siyaare ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal jotaay bi di sëriñ Mamoun Ndaw mi nga xam ne moom moog sëñ Aline Badara mi àdduna bépp leen i ndax yaatal gi ni liggéeyal borom Touba maam Cheikh Ibrahima Fall teg ko fan ko war a teg loolu di seen yitte moo tax àdduna leen i bëgge di leen ñaanal fi bëgg liggéey bi yàlla nañ ci dajeeg lu kawe seen jot barke maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di siyaare seen xaadim ñang bu baax nga xam ne moom itam bi ñëwee ci dëkk bi man dama ko gis rek bëgg ko waaye noonu la ma delloowaatee loolu muy ku baax di sëriñ ni ñëpp waaye woyof toll kon yàlla na ko bi defal siyaare seen ngañ moom itam di jàmbaar loolu bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall waaye noonu la ñuy siyaaree kilifa jataay bi nga xam ne mooy kilifa daara Kanzul muxtatin Touba Turki di bàyyi am di di jëwriñ comme ni ko sëñ Mamoun waxee keroog loolu daanaka mën naa ne yaay mën nañ ne yaay kilifa geneen kilifa gi ko wax ci woyof xam ne boo ko fekkee ci dëkk bu ñu la waxul ne mooy jëwriñu borom Touba ji doo ko xam ngir oyof man dama ko koy wax ne ko man tukki woon naa ci yeneen i réew gis naa jëwriñ ne fa koo ci gis da ngay ne seexu borom Touba la ndax aj geeg yooyu waaye moom man bi ma ñëwee ñu présenté ma ko ndax kii mooy jëwriñ ñi kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom yeggal liggéeyam mook sëñ Mor Ndiaye mi jiite Baye Fall yi moom it noonu la demee oyof loolu waaye di siyaare ka ñaanal sunu baay baay jërëjëfe borom Touba nga xamee tey nu sëñ bi dogal fi nun ba nit ñi duñu gis duñu bëgg di ñu teral ngir borom Touba ak xasaay di moom la ko sëñ bi jaarale te bari naa ci moroom mi bari nag yu mel noonu kon moom it ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex ndax sunu waajur wu jigéen la bokkal waaw ñëw ca Kaolack fekkoon ñu yëfi ndaw waaye mu xar ci tànk tubéem ban doon tey loo xam ne sëñ bi moo ko dogal ci ñun kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di siyaare ñëpp ausu billahi mina seytaani rajim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 لحور دل دون سحت إن سرسارا لو سناي وردواني بلا سقط مسخاد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى باي مكرمات من أتانا وفي أنجم من سارا إن الذين إلى سرزار قد قصدوا زيارتي فارقوا دارين وسارا إن الذين إلى سرزار قد قصدوا زيارتي فارقوا دارين أوسارا إن الذين إلى سرزار قد قصدوا زيارتي فارقوا دارين أوسارا yaa rabbana bi suurati maawooni wajjihi li xayri dararal malooni yaa rabbana abli bi haqi kawsari yumnal hayaati wa wujoori kasiri yaa rabbana wajjihi li xayri kaafiri bila madaratin bi haqi kaafiruun waarisu yaa badiu antal baaxi لك أرادي سبوك تباخي سل بتسليم على سيدنا محمد أبيبنا المرسدنا وآلي وسابي وجه الغروف زان اسم الخيرات من خير سروف وجه بي زان اسمك الخيرات جميعا يا مبقي الميرات بسورة النسر وتبكفا أفيدة أسادي والكفاء إلا سوانا وبالإخلاص جد لي إلى الجنات بالإخلاص رسيد يا صبور صلي بسلام هل الذي فاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال ولتكفني بأقي سورة فلق wa suurati naasi azaaya man xalaq bi kulli harfin min wuruufi bu saaratan yaamu bilaa maruufi jërëjëf seexu bamba yaa mata àndal am yow borom tuuba dootu ñàkk bay ñetaani waaji muusa bul fàtte waaja fa tuuba moo la faatu moo la tee ngala bul fàtti siixi bàmba ci duniya bu fa doo calam santaane Seex Ibra Faal moo di rijaalu layib jóg na di wër na lu layib Seex Ibra Faal moo di rijaalu layib jóg na di wër na ëhlu layib Cheikh Ibra Fall bi mu gisee Cheikh Bamba dafa nërmeelu jébbal ko boppam ne ko Mbàkke yow laa wóolu Cheikhul Xadim noon na sunu baay Cheikh Ibra Fall gore lu mu baaxle man la ko jox saadix la aka bari ngëm yow mi murit bu bëgg a gëm te saadix nangu lal maam Cheikh Ibrahima Fall jëfal ko. jërëjëf jërëjëf macha yàlla sunu borom. wéral baat bi sëriñ a du Jong macha allah si yëkkati boobu eh, kon nag xam naa ni mbokk yi noonu lañu ñu ubbee jotaay bi fas yéene ko ànd ak eh, sunu mbokk yi baax yi sëñ xaadim ñu ngi lay ziaraat bu baax lii moom li ñu cëral suñu xol sedd na ci loolu wax dëgg yàlla ñang sëñ ngañ yow daal leen bu cëralee nga tijjul ñu jotaay bi rek eh, sànq sëkk nuyoo wax nga ni maam Cheikh Ibrahima Fall ab bunt la wax nga ni maam Cheikh Ibrahima Fall ab làmp la wax nga ni maam Cheikh Ibrahima Fall ab yoon la loo ñuy ubbilee si maam Cheikh Ibrahima Fall la am. dafa am ku mas a ñëw ci borom Touba dafa weddi woon ne Cheikh Ibrahima mooy Baabul Muridina ci xolam bis mu toog ak Cheikh sëriñ bi te nag sëriñ bi da boo bëggee alxuraan man ko loolu sëriñ bi daf lay daf lay def xare ndax daana wax naan bu ngeen demee bay yónni ki wattu alxuraan bu leen ko yónni da ngeen di xool ki wattuwut ngeen yónni ko. bu ngeen demee ba amu leen loolu nag ngeen doog a yónni ki nga xam ne moo moo wattu alxuraan. ngir tëralee leen ko waaw ngir leen ko. waaye bi mag moomu ñëwee toog ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi ne ko Ibrahima jambar la lool Ibrahima de góor la lool mu ne wa taqasallahu Ibrahima xalila képp ko yàlla xool ba takk la xarit rek jàmbaar nga sëriñ bi dellu na ko Ibrahima jambar la lool Ibrahima de góor la lool mu delluwaat waxaat ko wa Ibrahima xalila ku yàlla xool ba takk la xarit rek jàmbaar ga sëriñ bi waxaat loolu mu waxaat loolu sëriñ bi ne ko yaa ngi wax rek te xamoo Ibrahima mi ma wax man de sama Cheikh Ibra Fall mi laa wax waaw ne ko damaa yoroon sama yëf hmm. yaakaar ne kenn gisu ko ndagate moom de gis na ko ma yaakaar ne koo gis doo xam nooy def ba mos moom de gis na ko xool na ba xam ni muy def ba mos ci ma yaakaar ne ku ko mos hmm. doo xam nooy def maam danga nga iñaan ba doo ko yéene kenn ndagate moom nag gis na ko xamna nim ci def te te yene nit ñepp xana kon kokoy babul muridina mu joge ci jataay bi dem ne day tuubali Cheikh ibrahim Fall dajje ak Cheikh ibrahim ci xuru ci njaareem Cheikh ibrahim mi and ak mag ñu daan andal rek Cheikh ibrahim ko seen rek ñu dem parasol bi Cheikh ibrahim suk mu daw dogale Cheikh ibrahim ne ko dama ñew ngir tuub si sam Cheikh Fall ne ko déet man kay ma wara tuub ma wane won ni la ba ñepp ne ni la xaj ba ci bok sax sama ko gisee war na ko wax ni la xana kon kokoy babul muridina ta Cheikh ta serigne bi neena atani allah babahu waaw yàlla buntu ba muy wax ci suratu hadis man la ko jox muy Cheikh Ibrahima Fall waaw kon loolu bawul murid moom kon leer na maanaam yoon wi Cheikh Ibrahima nag wone ngir ma mag ñi jariñ ci Cheikh masamba Diop dafa dafa mas a ñëw ci Cheikh Ibrahima waaw daan na ko man de ibrahima Fall da nga maa jaaxal da nga ñëw fekk ñuy toogandoog sëriñ bi di añandoog sëriñ bi lu ne ñu koy defandoog sëriñ bi nga ñëw ne du fi amee du fi amee Cheikh Ibrahima masamba mu ne ko mu ne ko Mbàkke mu ne ko nit ndax bu la invité këram togg ci boolam toggal la yàkkal la ci boolam nooy def mu ne ko xanaa ma toog xewlu mu ne ko ndax boo demee sa kër indi bool nooy def mu ne ko mu tibbal ma ma dem bokk ak sama njaboot mu ne ko loolaa leen bëggaloon waaw moo tax sëñ bay jaxate ne xamal na yow alxuraan ak sëriñ Ibra Fall ñëw bokk ci jaam ñi négal ma wax la ko ba yoon ba nekkee ca mbokkam yowoon boobu moroom lañ ko defee bu toogee ci kaw ñu toog ci kaw bu waxee ñu koy weddee ka xul waaw ba suñu borom wàcce saaru xujuraat la a xam li ñuy def de warul lay loola nag mooy lii fi Seex tey bi Cheikh Ibra Fall ñëwul mbiram yaatuwul waaw kon xam nga Cheikh Ibra am na ñu fa fekk waaw ndax ni ma ni ma koy faral di waxee ndax ñun Cheikh Ibra dañoo dimbali ci côté yëpp waaw ñun nanguwunoo gis dimbali gi ñu dimbali waaw gis gi nga xam maanaam mënul ni ma ko mën a waxee daal mooy dimbal gi noonu da dañu Cheikh Ibra dañoo wan na nii laa leen dimbalee def leen nii ngeen jëriñu ñu ne ko déedéet nii la ñuy def loolu moo waral lépp nag li ngay gis lépp jafe-jafe yi nga gis yëpp ñàkk topp Cheikh Ibrahima Fall dimbali gi ñu dimbali la waaw bàyyi seex jaay daa bàyyi ca ngaay def ne mag sërixul azar fall ñoo bokk génn guddi gun ja ganee jamono waaye man lañ xibaar si Cheikh Ibra waaw nee na Cheikh Ibra ne kooku de du dégg sa naar bi tudd naa ko sama bopp waaw nee na bi may doot tuut tànk ci saayir dama dama dama soboon ndax Cheikh Ibra daa bëggoon gone gu sob nee ma ñëw dekk ci pereng bi sama am nekk ci biir ma ne Bamba ji faal ba door dan ne woon du sari Cheikh Ibra ne ma kàcc de ah ma ne ndakate sama maam may dégg di ma ne ñane woon di sori seen i taaw jéblu nañ ama ne ndakate wax naa dëgg nee ma bëgg lu ko neex ne faal yaa koy njëkke faal yaa koy mujj ma ne ko déet Cheikh Ndiaye ma wax loolu moo xudde njëkkuma ca kër sëñ Bamba waaye lu fa baax maa ko fa jiitu kon li fi baax ba ñëpp di ko di ko di ko di ko di ko maanaam Cheikh Ibra ko yor waaw moo tax sëñ Moulay Boussa keroog bi Cheikh Ibra wàccee bi Cheikh Ibra wàccee sëñ Mbàkke Boussa def ne sëñ Moulay araam na ngir ma wa eh, keneen ndax bi sëriñ bi wàccee damaa jaayante ne dootuma way kenn daane sëñ digal naa la yow nga wayal ma Cheikh Ibra waaw mu ne walal kiraamu wa walal xosno yaa xasafa xalaa samiya bi xalilillahi man sarufa dana kii maa ngi doog a am dana njàqaree ngi doog am nag dana tedd nga wéy nga ba faw ñu ne ko suñ mu laay lu xew mu ne Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne mooy xartub yàlla bi te suñu borom boole ko ci surafa yi mu tànn kookoo dem dana akrim bihi min muridin xaasa martabatan la siyaax barran sa dooxan bil xulaa kalifa waaw dana leen nee na ko ku ney teral mu a Cheikh Ibra mi nga xam ne lu baax sasoo ci àdduna ci ci sunu maam aadama ba jaar ci rasulullahi ba fii nuy waxe lu fi baax rek Cheikh Ibra tax mu baax daan ne ku yor martaba rek Cheikh Ibra moo la ko jox daan ne baran ku baax la sa doxan ku dëgg la kalifa bil huda ku jeex tàkk ci njub la daan ne xat bàyyee xa seex xit man xaadi man fatinaa fa ahkama nas ma bi taqdimi mun sarifa faa ne kii ma leen di wax muy Cheikh Ibra ba muy jébaloo ndey ak bay amut daan ne ca la jébaloo boobu moo fa tuddoon xaadim kon ndakati turu xaadim lu fi yàgg la waaw daan boobu la organiser yoonu murit kon sëñ mu dem laay damay daal di kii rek dèjà. foofu incha allah buñ buñ la joxaatee kàddu gi sëñ Mamour buñ la jox buñ ko joxaatee kàddu gi dama bëgg foofu nga daanele foofu da nga fa gën a da nga fa gën a xuus di ñi nga xamante ne ñoom la euh, maam Cheikh Ibrahima Fall bokkaloon Serigne Touba maanaam di mag ñu baax ñu mu nekk loon Euh, ku si nekk si ñoom yaakaar naa ne yëkkati nga ay kàddu moo xam ay way la wala ay kàddu seere jëmale ko si maam kooku dinañ si ñëwaat léegi sëñ Mamadou dama lay jox nga dugalal ñu euh, suñu kilifa gi du baax ju baax jii di sëriñ Xaadim Ñaŋ ñu ngi lay jaajëfal baax a baax na si kàddu yi rafet yi euh, sëñ Ngañ barkalla <laughs> jërëjëf sëñ Aline Badara jërëjëf sëñ Ngañ Ngañ de moom fi mu tàmbalee waxtaan wi sax ak daa ni fi mu ko tëjee moom macha allah ndax dafay mel ne ubbi na jotaay bi waaye sëñ Aliou Badara li nga li nga wax léegi ren bu ñu dellusiwaatee ngañ ci loolu la ñu fas yéene tab bi te loolu la ñu la sëñ xaadim ñii mooy mag ñi nekkoon a seex yi ba ci daara ji yaakaar naa kenn jiitu ci sama am nag sëñ Modou faa Jama mi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa waxoon na ko teemalaa tas takkaat wala ma suuj la <laughs> waaw tas takkaat moom mooy mooy mooy comme ni ñuy def moteur oto rek. waaw maanaam segmenté ko. xam nga tas ko yëpp segmenté waat ko mu doon moteur fees tax di fonctionné ca di fonctionné ca yàlla. suuj nag mooy fekk loo xam ne day bëgg a kii rek nga kal ko. bu na ko tee tas takkaat. waaye tas takkaat ji la ko sëñ Tuubaa defal. ndax sëriñ bi moom du fecc la ndab. waaw moom day raxas ba mu set mu du yàpp. waaye sama am nag kenn du moom. Eh, defe naa nag seede yooyu ngay wax sax ci sëñ gañ. Mm-hmm. moom sëñ xaar yi fa lay duggee. ndax dégg naa maamam sëñ Modou Fadiama wax ne. ku dul Ibra Fall ay karaw yu bopp lañ tolloo maa yow waaw ne ku du Seex Ibra Faal rek maa yow ñoo tolloo karaw yu bopp te yaakaar naa lu baree bari seen diggante ñoom ñaar séq nañ ko te it day borom cër ndax euh, na sëñ Tuubaa séddalee woon dëkk bi sanc ba sa sanc bu njëkk ba yaakaar naa sëñ Mbàkke Bousso ak sëñ Fallu ak maamam la sëriñ bi waxee ne kenn ku ne na nga daan dëkk ba sanc fa te bu julli jotee ngi ñëw sama jumaa ji di fa julli te Mbàkke Bousso di ko jiite loolu maa ngi ko dégg ci laa mu sëñ Moussa Saliou moo tax boo demee tey kër ñang yaakaar naa lu waaye gàtt gàtt xam-xam ci Touba xam na kër ñang mooy ko sëñ Modou Fadiama sëñ dëkk ñang foofee la nekk <laughs> loolu nag mën nañ koo tàmbalee ci jotaay bi ñu jagleel Baabul Muridiina di maam Cheikh Ibrahima Fall Baye jërëjëf wakkaar bala ngaa dugg moom moom sëñ Modou mii laa doon wax ni ko daal kenn tënku la si jotaay bi yaa ak sa micro foo ko yëgee rek eh, li fekk sëñ Abdoulaye Thioune di agsi incha allah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin Euh, sëñ Mamoun damay sofaat rek ci sama nuyoo euh, di jiital ci Serigne Bara Niang mi nga xam ne mooy xalifab sëñ Ahmadou Fadima Niang muy nit ku baax ku ragal yàlla ku nangoo jaam yàlla di ñaan suñ borom yàggal ko fi lool te mooy ko wér ak suñu seex ñang mi nga xam ne euh, moo fi bàyyi ko ak suñu waajur yëpp di di si dolli sëñ Mor Baye Fall mii di ko am taalibe di jàmbaar lool di nuyu sëñ maam Cheikh Fall Diop waaw sëñ maam Cheikh Fall ku baax di Cheikh Ibra ak Cheikh Cheikh Ibra Fall ñom ah, ñoom macha allah ah, kon damay damay sof rek ci ni nga waxe rek ah, Cheikh Ibra mom suñ si doon waxtaan yaakar na ni fi bu suba du jeex ndax mun sama lepp day Cheikh Ibra waaw fa mu dekk ci keur nañ ñëpp xam nañ ko di ci profito di nuyu sama mbokk sama xarit may Ibra Fall musin Cheikh Fall Mbawar waaw ak seigne Cheikh bint Fall ci sama xarit lool musin mudou Moudou Ablaye Fall Ndar ak suñ mënañ faal moomu mu nekk Amérique di seen xarit di soppab jotaay bi maa moom tamit ay waay lañ te yàgg nañ di nuyu sëñ Moudou Fall mi nga xam ne tamit surtout Cheikh Ibrahima te mi ngi fii si dëkk bi waaw di nit ku baax ku am taalibe waaw kon Cheikh Ibrahima ak sëñ Moudou Fall moom dañoo yàgg ñoom ñaar am ay alaaxaat yu bari yoo xam ne séq nañ ko ñoom naar euh, jotaay bi sa xam naa ne man samay wax dul faral di kii waaye euh, ni ngeen ma kii rek moo tax ma ne naa si barkeelu euh, Cheikh Ibra dama ka bëgg sama xol ba nga xam suma day wax ci mom sax daanaka dama dul mëna sori si moom euh, ma ngi koy nettali sànq suñ ci euh maqami Cheikh Ibrahim ak daraja yi nga xam amna ko euh, benn bis dama dem ci hôtel bobu ñuy wax hôtel ndar bi ma fekk suñu mudu Abdoulaye Fall ndar euh, màggal gi nga xam mom lañ tuddé won suñu Abdoulaye Fall ndar ma and ak Maay Fall ak suñu Cheikh Bint Fall bi ñëwé nuyu suñu mudu Abdoulaye ci fi mu toog ak taalib yeeg ñëpp ñu ngi toog muy jotaay boo xam ne jotaay bu yéeme bu doy waar suñu Modu Abdoulaye si dara ji ji yàlla mayoon ak njàmbaar gi ak bëgg Seex Ibra ji ak nuru Seex Ibra ji ñëw nuyoo ko bi mu nuyoo sëñ Seex Bintu ne ko sëñ Xaadim mi de sama xarit la ne ko day mbokkum sëñ day sëtub sëñ Modu Faajam mu téyewaat sama loxo bu dëgër ne ma sëñ Xaadim xanaa xamoo ne sa maam sëñ Modu Faajam man dama kaa bëgg ma ne teg mu ne ba seede jëfee si seede Seex Ibra si ëttub Sëñ Tuubaa moo njëkk taxaw dem seede Seex Ibra xanaa boobu yombul ndax boobu mag ñi fi ñu tolloon si xaal ak darajaat ak Seex Ibra ni ñëwee woon si kër Sëñ Tuubaa nga xam ne lu bëri da ko faa soppi te soppim gi lépp teg nit ñi si ihdina siraat mustaqim la akub taalibi boobu nit ñi comprendre wul waaye ñëpp xam Seex Ibra léegi mu ni moo njëkk a taxaw daane ku dul Ibrahima Fall man Ahmadou Fadio ma ñëw karaw bopp laa yem ak mu ma lu rëy loolu ku ko wax Cheikh Ibra kon kooku teel naa xam kuy Cheikh Ibra waaw mu ma ñu dox ba digg jamono moom moo ma nettali sëñ Mourou Ablaye nee na ñu dox ba digg jamono Cheikh Ibra ak sëñ Ahmadou Fadima ñu dajee si kër sëñ Touba ab ziar si njaarim bi Cheikh Ibra génnee bu noppi mel na lu xaw a ni ko tuuti sëñ Ahmadou Fadima dem bi mu génne mu ne ko Ahmadou Fadima mu ne ko Mbacke mu ko dégg naa ne yàlla xamal na lépp. dama laa bëgg laaj man maay kan ndax xam nga man maay kan nee na sëñ Modou Fadima daal di téye loxo Cheikh Ibra ba mu dëgër daal di mel ni ku yegg suuf tibb loxo suuf daal di kempar ni loxo yi baaraami Cheikh Ibra yi sotti si suuf si nee na jël baaraamam bi nee jam ko si digg baaraamu Cheikh si digg loxo bi Cheikh Ibra ne ko Ibrahima Fall Ibrahima Fall ba muy ñaar yoon mu ne ko yow yaay suuf lépp lu soppeeku yaa ko soppi waaye dara mënu laa soppi nee na Seex Ibra mel na ko ànd ak àll aku tàngoor bif loxo bu ne ko Ahmadou Fadima xam nga ma dee xam nga ma dee kon nga xam ne ñoom ñaar seen relation dafa yàgg te sëñ Modou Fadima dafa doon koo xam ne ku am cër la sëñ Touba sëñ Touba ndax Ahmadou Soxna Bousso la ak Seer Soxna Bousso ñoom ñaar ñoo bokk benn ndey benn baay Ahmadou Soxna Bousso mooy waajuru maam Asawaalo maam Asawaalo moo jur Soxna Jaara Soxna jaar sëñ Touba Seer Soxna Bousso moo jur Soxna Fadima Mbàkke Soxna Fadima Mbàkke moo jur sëñ Modou Fadima sëñ Modou Fadima jur sëñ Modou Xëri sëñ Modou Xëri jur sëñ Amdi Moussa Fadima bi ma jur comme nañu seet naa maam yi ñu bokk benn ndey ak benn baay waaw di ay mbokk si côté bépp nag waaye teewul sëñ Tuubaa moom loo baax baax baax baax baax baax ak taalib rek la fay jëriñ moom rek la moo tax mag ñi mosuñoo dox si ak mbokk mosuñoo dox si dara ak taalib rek te taalib képp ku ko am rek war nga laa sante maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul ndax sëriñ bi si boppam mas naa dajale mag ñi si njaarim dama lay xamal ak taalibe rek te lépp Seex Ibra ko waral rek dajale mag ñëpp si njaaram ñu ñëw mu woo leen man leen yéen ñi nga xam ne yéenay sama mbokki bopp yi damaa bëgg ngeen toog ñii sama wetu ndeyjoor yéen ñi nga xam ne yéenay fere yi bàyyi lépp jàpp ma ngir yàlla ak rasulillah yi damaa bëgg ngeen toog ñii sama wetu càmmoñ ñooñu ñooy taalibe yi daan yéen taalibe yi jàppal leen ma sama mbokk yi kat ndax sama mbokk yi amuñu kenn mën lañ am mën Sëñ Tuubaa daan ne yéen mbokk yi jàppal leen ma taalibe yii man suñ tubaa aw ma kenn taalibe la am mu ñaari wax yu niroo loolu lépp nag loo si xool rek nga ci gis Seex Ibra ndax yoon fu taalibe yëg rek Seex Ibra ko fi yëgal muy waa ñaari wax yu niroo suñ sa suñ suñ suñ suñ ma kii mu tudd sax euh, suñ euh, maa ngi fàtte sax mu nu jàppale ma ngi ñaari wax yoo xam ne dañoo niroo

du rëcc àdduna du rëcc àllaaxira waaw suñ tubaa ne ko mun ndumbe mu ne ko mbàkki mu ne ko loolu yi nga wax de sikkuwul noonu la demee xanaa xamoo maag taalibe yii duñ tàqali ko mukk maag ñoom ba àjjana rek kon nga xam ne kon ñun ki ñu dimbale mooy Seex Ibra moom mi nga xam ne moo ñëw won ñu ak taalibe ak naka lañ koy doxalee ak ku bëgg a jëriñu suñ tubaa nan ngay jëriñoo si moom te lépp ak taalibe la rek kon yoonu dafa mel na lenn mayewu fi dara dul ak taalibe rek soo ko xoolal suñ saali mi nga xam ne mooy suñ jaakaar ji foo ko mos a gis si taalibe rek nga ko gis waaw nga xool ko si njaboot suñ tubaay yëpp ba Cheikh Mouhamadul Mourtala ñoom ñëpp si taalib la ñuy dox te loolu lépp ñu ngi koy royee suñu maam maam Cheikh Ibrahima Baay Murid kon jamono ji ñu toll Cheikh Ibra waxoon na wax ju am joo xam ne lu jamono yu dox rek wax Cheikh Ibra dañ a dégg daana doom maa ngi leen xamal ne képp ku am ak taalibe ko denc ci ruux moo la jëriñ te xool leen jamono ji ni mu yàqoo ak ni mu mel nga xam ne soo fi xoolee ñi nga xam ne ñoom la ñu xoolee nit ñu baax ñi wala ñoo fi dara mooy taalib yi rek taalib yi wërtu sikki sàkk wërtu ding ding ñun sëñ Tuubaa rek lañu am ak Seex waaw mas naa fekk mag ñi tamit si kër sëñ Tuubaa yi si njaarim ñun ñëpp ñuy jaam yàlla mun leen doom ana nan ngeen toppee sëriñ bi ñu ne ko ah ñun de ñu ngi si sëriñ li ñu sëriñ boo waxoon rek ihdina siraata mustaqim ñu ngi julli ñu ngi woor ñu ngi jàng xasida ñu ngi jàng alxuraan ñu leen waaw doom loolu de lool nuru na topp sëriñ bi te am na solo loolu baax na waaye des na de des na de waaw dana ko sëñ yaaram mu ne ko naam faal mu ne ko utal ma ñaari saako sëñ yaaram ko ñaari saako mu ne ko demal si si daara ja képp koo fa fekk muy jàng alxuraan jox ak jàng xasida ak di wér di salaatu ala jox leen saako lépp lu ñu wax rek nañ ko tifli saako bi waaw dana ko naam faal mu ne ko beneen saako bii demal kër sëñ bàmba lu fay bant ak xob na ko for defal ma ko saako bi su ngoon jotee ngeen di ma ñaari saako yëpp suñu yaaram nekk noonu ba ngoon jot bi ngoon jotee mu dajale ñaari saako yëpp Seex Ibra day jàngale day jàngale waaw wan na leen lépp baax na waaye da leen a xamal kan mooy suñ Tuubaa ndax ñun Seex Ibra dañoo war sax fu ñu toogati sax dañoo war di wax jërëjëf Seex Ibra rek jërëjëf suñ Tuubaa loolu ëpp na sax dañoo war a yem si jërëjëf Seex Ibra rek moom ndax dafa doy sëkk waaw ndax nim ñu xamalee suñ Tuubaa ak ni ñu dundalee suñ Tuubaa amul keneen ku dul moom ku ñu mën a dimbalee noonu suñ Tuubaa waaye te nit ñi nag dañoo ràññewul fii coow li bëri na rëng-rëng yi bëri na waaye yow mi xiyaam moom suñ tubaa rek fu mën dara waaw ak jàmbaar gii di Seex Ibra waaw léegi bi ngoon jotee mu indi ko ñaari saako yi ne ko yaaram mu ne ko mu ne ko naam faal mu ne ko sottil saaku bu njëkk bi bi nga xam ne nit ñi doon jàng ci lañ ci tefi seen yëpp seen yaaram daal di yëlëb saaku ba mu ne ko yaaram dara du wadd waaw daal ko indil beneen bi mu indi beneen bi mu yëlëb bant yi mu foroo nag xob yeeg yëpp mu ne ko yaaram xam nga ñaari saako yi li mën a si misaale ñu ko naam faal yow laay déglu mu ne ko sëñ bàmba dee su ko waxal ndax lépp lu mat a wax sëñ bàmba wax na ko lu mat a jëf seex sëñ bàmba jëf na ko daana ko yaarab mu ne ko naam faal mu ne ko sëñ bàmba ku ñuy jëfal la waaw daana ku ñuy jëfal la yoon yu jëfe fi may dara moo tax murit boo gis muy denc dara ak di wàññi dara kooku ak muritam des na seex bi addi yi dañ daan dañ daan rompante da daan buub kër gi ba mu jeex takk dem jox sëñ Tuubaa balaa keneen di ñëw lu fa ñëw nekkaat si diggante mu yabal mu yabalaat loolu kon yoonu suñ tubaab yi jëfa fii may dara ndax loolu soo ko xoolee Seex Ibra wax na ko nee na ko yaaram mu ne ko mbàkki mu ne ko suñ bàmba lu ma am defal naa ko lu ma am jox naa te du ma mukk mu ko yaaram mu ne ko mbàkki mu ne ko faal mu ne ko dinañ dem bu mujj jamono jëf jii may jëfal suñ bàmb dinañ dem bu mujj jamono mooy continuer ko jëfal ba keroog yow mu xiyam waaw te loolu soo ko xoolee ñëw na ba léegi suñ bàmb waaw bërëbu suñ suñ Seex Ibra bi li muy génnee si jëfi bi Ibra kenn xamul nañ mu kon nga wa 17 millions kon nga xamne ne Cheikh Ibra rek mo fi nek après mag nga xamne ne kon lolu nga xamne ne jëf rek mo am solo. Cheikh ibrahim Fall amul morom. sak na mbër yi toll ni noom boole na pengo mak sawam lu yag dotul nox noxi ma Cheikh ibrahim Fall lamp bi Cheikh Bamba tal. bareel na penkoom mak sawam lu yag dotul nox noxi jaaraama Cheikh Ibrahima Fall lamp bi Cheikh Bamba taal leeral na réew mi yaay kamal yàlla nga dolley bërëxe Bamba am na Moustapha Cheikh Ibra am na Moustapha diggante Marwa ak Safa ki aji war nga fa doxe Cheikh Bamba am na Basiir Cheikh Ibra Fall am na Basiir mbég moo ci dem lekk ba jegeel ma kay toog gi joxe eh, jotaay bi kawe kawe na lool eh, kawe na lool lool lool macha allah eh, sëñ Xaadim daneen daneen dellu si bu baax a baax ndax gis nga sëñ Mamour yi mu yu mu yu mu junj yëpp te dañ lay faral di dégg ngay wax naan ñaar ñoo gis ñu boole leen photo ñu boole képp koo gis ñu boole ko photo ku dul Sëñ Tuubaa boo doxee tuuti da nga dégg ñun la kii kan la ba mu des maam Cheikh Ibrahima wala ñuy dëkkaat si. waaw waaw waaw xam nga loolu. Euh, sëñ Alioune Badara. moo li wax léegi. li koy firndeel mooy sëñ Modou Ablaye moo nettali ci waxtaanu Murid Saadix ne Cheikh Ibrahima Fall nee na ba dina tukki maag sëñ Bamba rek la ñuy tudd ci lu wér. maag sëñ Bamba képp lu ñuy tudd ci lu wér daal di wax ne yoonu sëñ Bamba yu may royukaay bi. Cheikh Ibra nee na ku ma jéggi weesu nga dibi te ku ak siwul doom maa daal di wax ne ku bëgg ci lii sëñ Bamba am Cheikh Ibra na man Ibrahima Fall li ma def ngay def kon kenn mënut a jëriñ ci Sëriñ Touba lu da ngaa jaar ci maam Cheikh Ibrahima Fall a loolu Sëriñ ko wax moo wax ne déet mosta bàyyi ko ci làmmiñu Ibra Fall tabbi sama nopp te mag ñi Cheikh Ibra yaaral bopp seen bopp nga xam ne kenn ko ne loxob Cheikh Ibra la toog ñoom ñëpp itam naka jekk ci foofu lañ tegoon seen tànk. dama koy nettali lu bëri Baye Abdou Niang moo ma ne. keroog ba ma jékkatee jaxaay gi ca polonteer ba ca njaarim jox Cheikh ne ba ba mu téyee laaf ya ba mu téyee tànk yi mu yëngal laaf yi mag ñëpp yi xool Cheikh naa doom li nu mu tudd mag ñi ak jaxaay mu ne ma yow noo tudd ma ne ko Abdou Niang mu ne xanaa doomu Mati Fall sans moom mag ñi ne waa kii sëtu Modou Faat maa xëy xuma seera faat naa kii maa ko jur ndax ndayam maa ko jox Babacar Niang baayam daan na sa bàyyi kat mas na laaj ay ma laaj Ahmadou mag Modou Faat ma ne ko ana ma nga woon a manuma roqee faal sa moom moo ko yóbbal ndax ca kër Mourgué Awa Fall mu ne indil leen ma ko ma jox ko Babacar Niang ndax laajuma barke di soxna la bëgg nee na Cheikh Ibrahima joxañ na ma kooku mooy sa ndey waaye li nga wax léegi ne mag ñi taalibe gi nekkoon ci ñoom te Cheikh ba jàngal leen ko laa la bëgg a leeral nee na keroog ba Cheikh ba yëkkatee jaxaay gi jox ma Barak Fall na ko téye ko te wutul ko kër kaaf lay wax de diglul ni Cheikh Ibrahima doon waxee bàyyi ma Barak daf ko ne ma Barak téyel jaxaay gi te ko kër ne ko ndax xam nga lu baax ci moom mooy lu mu war a lekk mm-hmm. bàyyi ma baarak na ko faal loo ko tàmmul Cheikh Ibrahima lu ñu royet nañ ko jox xol ba ne ko ma baarak ndax xam nga nu koy lekk bàyyi ma na ko faal noo digle mu ne ko da ciy sëpp sàll yi bu reggee siggi bu xiifee sa gàtt xoolal na ñuy waxante ak Cheikh Ibrahima nga xam ne déet ak xawma ak foog naa doo ko dégg ndax Cheikh Ibrahima soo ko nee noo say mbir noonu lay doon ba faw Cheikh Ibrahima kenn du ko gàntal ndax mus sa gàntal ku tedd ki te lépp lu mu lebal sëñ Tuubaa lépp lu mu lebal rek sëñ Tuubaa fay na ndax sëñ Tuubaa wax ni Ibra Fall bu xëyoon bàyyi ma sax ñam duñ ko bàyyi loolu waaw ndax kenn ku ci nekk ci noonu di Baye Fall ku ne Cheikh Ibra la gënal lépp benn ci man lu yàlla bind Cheikh Ibra ma ko gënal kon loolu lépp nag sëñ bi noo ko def mu def la ni sëñ wax na ko léegi ñàkk am sago ci sëñ Tuubaa tax sëriñ bi fexe ba mur yi amuñ sago ci moom te li xew démb te Cheikh ko bu firnde la sëñ Mountakha moo bunt bi fi ne nii cheikh rafal ji mom far fos la lel na ko gayet ndax loolu day lo xamne naka jekk rek mag ñi xam nañ ne lim defal seigne touba seigne touba tan ko xoy te cheikh rafal seigne touba waxon na ne lu ngeen gis ci ci mbiram faxasitu la wax lolu ku am faxasitu wom waye cheikh ibra adna taxu won di jayante dafa waxon ku teddi ki nako lu tol ne mbar soxlo mako ci adna waye bu ndaje yomal xeyam na man ñet fii ñu nekk nii firnde li ci fii dëkk bi dëkk bu yàgg la ci taarix ci lislaam fii xeex fii xeex nañ xeexal nañ fi lislaam ba tey fii lu baree bari xew na fi te pourtant bu ñu ba ci biir waxtaan wi danaa la xamal na la ndekete Cheikh Ibra bokk ci Cheikh Ibra xam fii waaw fii waaw waa Turki Istanbul bii Cheikh Ibra ko xam Baye Malick Sarr Matt doom Baye Mour Sarr Matt moo wax ma signal ni Badara Baye ma nga yaroo gébbu te mag ñi Cheikh Ibra toog waaw xoolal moo tax ma ne Cheikh Ibra du nit li li mbir la lay fal xëri nduur neel benn bàyyi Thierno Sall bàyyi Mor Ndiaye Dank. bàyyi Mor Ndiaye tombu deel des na ci mag ñi de kenn waaw bu du sax Tay wala ca mag ñi mujj jébbu rek juróom daal lañ xaj boo xam ne ca gébbu ma ngi ne nañ xaj bi da doon bañ murit bu gisee murit day daw song ko saa bu jógee ca pël ga rek attaqué daara ji ma ngi fàq seen yëpp du yegg si bis mu jékki-jékki na bërët ma ngi ne bërët jóg xaj bi ñëw ba ci digg pénc mi daal di sukk ñaari bëti woowu di bat ko di raam kenn ci mag ñi ne bërët na barki seerafal xaj bi jébbalu na ñu ñëw ba jege ko jàpp ko woo mat indi ci daara ji wutal ko gaal bu baax bu ñuy xéwlu tibbal ko ci xaj bi def ak ñoom ay fan bis ñuy nuyu ci Seex Ibra njëriñ biñ ko indaalee ba saa am seex génn mag ñi sukk làq xaj ba ci ginnaaw comme këlbu la bëgguñu Seex Ibra gis ko Seex Ibra di nuyoog ñoom ah Mor Ndiaye dànq Mor Ndiaye tomb del Thierno Sall Abdoulaye Fall Xëri Ndour ana waa Gébbu naka daara ja dam yàgg Seex Ibra dawal bëtam seen xaj bi naa na ko ci ànd ak kii ma ñu ne tekk mun naa ne ko ci ànd ak kii ma ngi ne teg Cheikh Renafi kii amoon na ci ñu njëkk ña daal di tudd waa askaabul kahfi daal di tudd Baye Mor Ndiaye dànq Baye Mor Ndiaye tomb del daal laa faxari ndóor da juróom daan na ñoom ñii ñoo ñoo waa askaabul kahfi daal na seen xaj baa nga nee Cheikh Ibra joxañ loolu moo tax biñu egsee fii nga tudd loola sama xel dem ca la woon ca gébb nga xam na Cheikh Ibra nee na nee na luy gan amul ci yoon bi hasard ñi gëmul yàlla ko fi waaye nag loola waaye mën mooy loolee ca la Seera Faal tànn dañ bàyyi xel loolu de mag ñi fekke woon nañ ca démb de xam nañ li xew de dara umpu leen Seex Ibra daa tànn ca loola tànnal waaw bellee suma ràññee ràññee suma bellee waaye suma bellee ràññee Seex Ibra yor li gën <laughs> seen xaj boobu di xitmiir ni nga ko waxee nga xamante ni euh, maam Cheikh Ibrahima Fall moom lépp lu mu sa xew euh, ci ci ci diine di di si tànneef Serigne Touba rafaatee la ko loolu moom leer na nga xamante seen seen seen caverne boobu di seen xunt woowu fii euh, la la nekk si si si Turquie moom daal Cheikh Ibrahima kenn xamul lu mu doon kon sëñ Mamour bu ñu ñëwee fii di waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall fekk fi ay mbokki taalibe yu dëggu yu Cheikh Ibrahima cëral ñuy taxaw liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall bi fii yaakaar naa ni kon war nañ fay ñëw bu wër a wër ndax euh, Cheikh Ibrahima tamponné na seen liggéey euh, sëñ sëñ sëñ Mor euh, delloowaat la kàddu gi ndax sëñ Mamour junj na ko sëñ Gañ sëñ Mamour junj na ko sëñ Xaadim wax na ko sànq ba ci maamam ju tedd jooju nga xamante ni yëkkati na ay kàddu seere jëmale ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall sànq andi nga si ñi nga xam ne ki njaboot sëñ sëñ Mbàkke Bousso indi nga fi sànq euh, suñ Bay Jaxate ñii way nañ maam Cheikh Ibrahima Fall ci arab ñii way nañ ko ci wolof ñii yëkkati nañ kàddu seere dénk ko seen njaboot wala ñu dénkante ko seen biir foofu laa bëggoon ko dugg maam suñ àll <laughs> yaa ngi suñu àll suñu maamun da ngeen ubbi ay jataay jataay <laughs> ndax assemble kahfi googu ngeen di wax maanaam ma am la ma ci leeral tuuti sëñ Mor Mbay Sise ko wax waaw sëñ Mor Mbay Sise nee na bay ba bay alaaji gajaga mi daan jàng fulkum jaarim xam ngeen ko baayam bay alliw gajaga mm. waaw nee dafa tawat suñu mor mbay ne ma ko seet waaw kuy kuy dem ba noppi duma wax ak moom li ma yor alaaji laa koy jox waaw daan xa kaay leen jege ma wax leen lu ma waxoon moom moom mi nga xam ne ndax suñu mor taala faal moom ñoom ñaar ñoo yarondoo ci biir kër sëriñ Touba suñu mor taala du julli moom du julli mu ne leen kaay ma leeral leen loolu moo tax du julli mm. xam ngeen lu tax du jullee ñu ne ko dee ma ko ashabul kahfi la bokk mm. ashabul kahfi googee Cheikh Rafaal la doonoon seen ji motax tan gi nga wax ni manam bay mut sar dama ci wax lu bay malik sar dama ci wax lu leer lu bare bari waxna ma sax lo xamne ne meune su ko wax ci kaw waxna ma ne seigne Cheikh Fall Baye góor ko tudde manam lu bare bari ba moom Baye Malick Sarr wax na ma ko waaw <laughs> li ma Cheikh Ibra dimbele manam ci ci sen jëm yi manam li li da ko firndel waaw ci ñew gi nga da ngeen ko fe ñew seigne Aline Badara leral digeunte ma Ibrahima hmm. ak Cheikh Ibra ñom ñaar ngay len jàkk joojee ci njëriñ jumaam joojee waaw daana wax naan seen maam Ibrahima ku fi yàgg la doom waaw xam nga baatu njëbbal Cheikh Ibrahima won na ko dafay yàgg de waaw keroog seen maam Ibrahima bi muy bi muy bi muy waaj laataa dem lu njabootam wala tamutoona ilaa wa antum muslimun bu leen faatu mukk te jébbalu leen moom moom la ñu waat ci biir kër Sëñ Tuubaa waaw jébbal gi <laughs> ku fi yàgg la waaw ndax Cheikh Ibrahima dimbali gi ñu dimbali te ñun nanguwuñu koo gis daal man fi ne nii man moo ma yëm te mag ñi nag ñi ñi ñi bokkoon ci sëñ Tuubaa mhm. danoo ñi ci serigne bi dimbali nak la wax de danoo teeloon a nangu mhm. waaw ndax sëñ Musaa Ka dem ak Cheikh Ibra da lu xorom lu ci xew waaw ndax xam nga amna lu wax Cheikh Ibra xam nga Cheikh Ibra daf ne ko woon Moussa mu ne ko mu ne ko Mbàkke mu ne ko bu won serigne touba dama lay ray su la ci sama woon ak di mhm. ndax li serigne touba def ci yow ne ma dem Ceyeen Jolof seeti sëriñ Tuubaa mu ne bala ngaa ñibbi na nga jaar ci siyaare ji Cheikh Ibra Madina Fall la fek Cheikh Ibra mok Cheikh Ibra mok Cheikh Ibra ba far mu tawat fa nak Tawar tawat fa tawat ju metti ne ma yaakaar na lama cheikh seex bi day bëgg day bëgg am ne cheikh bi da xey genn ci ci perang bi ne ma Moussa mané ko mbacké mu ne ma xam nga sa turandoo la ko daloon ah? a ko dem no pecc pecc moo moko jambal ci jambal waw pecc njambal moko dalon ci jëbi da ne ko Moussa mu ne ko mbacké mu ne ko tay def sa yar wi yëpp njàmbal mu ne li ma njambal fala ko njambal mu di ma ñaanal bu mu ma langal waw <laughs> dem na banan sa cheikh bi mu ne ma Moussa mané ko fal mu ne ma seen jant taxul nga siak laal bari wana ko tok Cheikh Bamba tok nga diko xol bu gisoko mako xol xam nga Cheikh <laughs> re dèjà xam nga tud nga magni ta magni Cheikh re ñi mu yaral bopam la wax de waxuma ñi and ak borom tuba bis dajale na len ci dan dama am luma jaaxal bëgg len ko laaj biig dama wax ak sama borom ngeen xew di ma xool ci jataay bi ah, ma laaj sama borom ñi lan mo len andi fi mu ne ma da nga yoni gi ngi len di yoni ci seigne Bamba ñu dem di ñew waaw kon kon mbir mi fofu la xam li xam li xew rek moy moy li li cheikh xibra wane xam nga sëñ sëñ Moussa Ka nee na ma wax la waxi Cheikh Ibra Fall digganteem ak Cheikh Bamba moy boromi hal waaw nee na ba mat na junni at worna yalla burba ta bo bindagul suñu mam adama sàkk nu ma bi bind doomu adama xam nga xam nga loolu da yag ñom ñaar fan ànd do dut fi motax sëñ Moussa Ka bi Cheikh Ibra demee looloo waral wala wala fan bi hadina ndax day bëgg a jeex am gaay yu bax yey bëgg jeex am mbaru ndaw ñuy bëgg a seex moo gaa yi xam naka pexe te ne ka xamle woon ak tarbiya ak ka xamoon ak tarbiya moo ñu demee ba surke ya ku leen di wax la ka pexe waaw ah, ka woote woon ci àdduna ba ñëpp wuy ji fàdduna nan jéem a dëddu àdduna te jéem a wuy ji mooy pexe xanaa ah, xamoo Seex Ibra li mu am ni xam nga def na sëñ Bàmba te sëñ Basiir wax na ko ba ma ba ma jébalu ba sëñ Bàmba nangal ma ko dama ne ko an naa am yi wa daarul aaxirat sama mbir yëpp nay àllaaxira waaw sëñ Basiir xam ne xëy moom ñu xam Seex Ibra wax na nu Seex xam nga dafa am lu mu tuddee Seex Ibra mu neex ma lool daf ne hatta muriduhu kabir as ibrahim fall hmm. murid bu mag baa ma nettali maanaam ñu ne ko ñu ne ko kan manam mu ne ni may tuddé Cheikh bi man waxuma min fursanihi niyati suma don tuddu Cheikh bi damay xol fas wo xamne dal moy fas yoras te sa buñ kurso may jël pé non lay tuddé Cheikh xam Cheikh bu di alwan. ni la Cheikh ibrahim Fall def rijal ya naw ko fi la Cheikh ibrahim Fall jaar ba xeyni leng Tak nib jant baña pousen ko bamma ni jass julli jurom jago ko tër yoonu cheikh ibrahim Faal cheikh ibrahim ko ku nepp mourid la atanangulo cheikh ibrahim Ibra Faal ku gemen japp mba khalatam juy ko bamma di geji Cheikh Ibrahim Faal kum jàllewul ëllëg malaaka ya dañ ko bamba di bi Seex Ibra lay baag bi bul sikki sàkka yow xàllu waa ngi yow ko jaaraama Seex Ibra Faal baabul muridiina war na képp kuy murit ku mu mën doon doo julli doo woor ñu may la sooroor bësut fa kër buur lii kenn musu koo gisee amaana waay di jeex ci téere mbaa jamonoom allahu yàlla noppi na ci kii yàlla Seex Faal mbër mu nekk ak lan ko fëlee Seex mii mbër alal nga ko fëlee mii mbër lewet nga ko fëlee mii mbër nga daane ko wasal mii mbër nga daane ko yarub Cheikh Ibra Fall mi mbar nga daane ko beru te taxul yow nga yaru ku daane nang ko fa bet mi nga daane ko yaru mi mbar nga daane ko beru te taxul yow nga yabe jaaraama Cheikh Ibra Fall mi mbar nga daane ko tebe te taxul yow nga yabe ku daanu it ko fa bet te ko gaa koy bësal jaaraama Cheikh Ibra Fall baabul muridina war na képp kuy murid ku mu doon. jaaraama na képp kuy murid ku mu mën la lool dikkal si Cheikh Mouhamadou Diop Paxa borom sultaanul aarifin. di naan suñu yàlla ba waaw suñu mët Diop de daa xam li xew waaw daa xam ne mbiri Cheikh Ibrahima daa xam ne mbiri Cheikh Ibrahima. ndax neena ada damay dem aljana ci no borom Touba ak ci mbaxam waye keur guma gis buma duggé rek keur guma gis mu rafet rek ba yim ko lol so laaje ko mom ñu ko Ibra Fall ko mu ñew ci serigne bi ne ko may yi nga may Ibra faal ëpp na de serigne bi ne ko luma ko may mu ne ko damay dem aljana ci sa kàttan ak ci sa mbax waye suma ma rek keur guma gis mu rafet ba yim ma lol ko laaje ñu ne ma ko kon ëlëk yu mal xeyaa mo ni sedd mu ne ko sa di am gën ci de waye may mako ko da liggéey kon mbiri ci liggéey la ne mu ne ko nang ma defal fum tangkam, tankam ma tek fa sama bes serigne mi ne ko lolou de mom fatna mom xana fum fu mu jaar moog waa këram ba pënd ba wuri nga doga jall mu bindub Cheikh ibrahim Fall dan Cheikh ibrahim Fall lima nar lay wax bu ni tek jinne malaika teewee ba ñëpp teew soxluma ci Lama jaamu yalla dara lama def ci lu baax soxlawuma taxaw ci ne ma jow paxa sama xarita loolu rek doyna ma ngir ma am li ma bëgg ci yalla aw da te bir lettre ba nag mu ne fala abil muridina a cheikh ibrahima fall muhjila muhjili sawil ak yasi walan fall hasihi labayata fa ahmaluhum bi sama waay wi maa ko jimi ci ki nga xamne moy bayu muridi kon bayu muridi yagna wa cheikh ibrahima fall mi nga xamne moro ba raw xel dan ne ilayka law dara naa sa xilaka najaa wa subul ila sabilaka ki xam cheikh ibrahima wa neena cheikh ibrahima yalla may na la dund law dara naa ay bu nit ñi xamoon li nga yor lan joge fu sori aw da nan bayiko fi dem ci rewma ngir dem ci cheikh Ibra moo ñu serigne touba non la ci djiblo wax dan ne salamun hakatun samsun fi dawhi ata salamun kama sada daa iya fii dan ne cheikh Ibra maa ngi lay nuyu nuyu ne na mel ci yow ne ku tawaton ba ñepp yem ko ba ñepp def ne fatuna am ko xamne da ñew ñëw rek jox ko garab mu nan ko rek wer ni mi yéeme xam nga ko kum dal da nga yem sa xol dina set lool mu ne ko sama bi yalla sedde non sa xol dan ne aya bufu yow Ibrahim lawla qasadatan lari la xaaloo atani manilaka waw la ci arab moy ñu def langa buri ñu nek ci langa bi yep wor ko ba sonu gisuñu ko am ko jóge ci àll ba rek ñew dinañ li ngeen di wor mi ngi ni da ne ko li yalla nëbboon jam yep yow rek ya ko xam waw ne ko bu soxor ak iñan lu yoret ci lu bax rek da wor ñew na yef yëfi Cheikh dem na ci bir banan ko gis nga kat sax manam bu de noddu noddu fajar amma bu de noddu dana am ngelaw lo xam dana ko noy waye dana noddu gekk neex waye amna ne ko noonu nga mel ci ci xel nit ñi gaa yi xam na la day dof doflu kon kooku maanaam digganteem ak Cheikh Ibra noonu la demee te Cheikh Ibra daal liggéey nag maanaam xam nga won na noonu loo xam ne gaa yi bàyyiwuñ ko xel de jëf na ay jëf yoo xam ne ay jëf yoo xam ne jubluwu ci ngir am doole ci yàlla waaye da cee jublu ne ku liggéeyal Serigne tubaab ba noppi ba noppi ba am ba Serigne Touba gërëm la nii ngay mel waaw Serigne Makhtar Niang dëkk dëkk bu ñuy wax ndey dafa ñëw ci Cheikh Ibra ne ko damaa bëgg at mu nekk nga sas ma cheikh na ko maxtaar ñang te ngay def lo am andi mu ne ko am des koy tabbil sas mu ne <laughs> at andi fukki dërëm sëñ maxtaar ñang dem dey mbay jaay mbayam menace bapam jurum ñaari dalam, la am xam nga cheikh ibrahim koy bëgg jàngal ndax lam ko wax ne ko andil waaw mu ne ko mu ne ko mu dang may sas am andi rek mu dem am juróom ñaari bu ko andee cheikh ibrahim xam ne moo ko waxoon waaye cheikh ibrahim koy bëgg jàngal ne ko kilifa bu xasee wax rek waroo wax leneen bi mu jugee si saxaar si nag war a jëm si njaareem saxaar gi jub ba gaarum njaareem bi rek détonateur di wàcc détonateur di wàcc ba contrôle bi dugg am ku cëppeelu daanu contrôle bi gis li ni tere rek na xanaa ci daanu moom lii xam nga xelu mbur dee gaaw sëñ Matar ña ne ko moomu ko maa ko moom waaw mu ne ko lii ñuy tere ba wax ko ñëpp mu ne ko xawma ko woon yóbbu ma fu la neex ñu ko ca gaal ba bàyyi ko ci gaar ba bay timis di bëgg a jot ñu bàyyi ko mu génn di ko jaay rek comme njëkk a dajal ne ko ñett dërëm laa ci man mu jaay ko mottali fukki dërëm yi waaw timis la nuyu Cheikh Ibra bi mu ñëwee ci Cheikh Ibra Cheikh Ibra nuyoo ak moom naan ko ana waa ndey ana waa bërëb sàngam ana diw ana diw ba nuyoo bi diib mu jël fukki dërëm bi jox ko Cheikh Ibra Cheikh Ibra bant xat gi mu wéeru lomp ci benn bant di falang ñett dërëm yi ba mu jëm nee am ko ne ana kuy defar waa yàlla ji Cheikh ne ah doom ana kooku lu mu wax ñu ne ko kuy defar waa yàlla ji la wax mu ne xéxé yàlla ni la def waayam teemoon na njaay yàlla jàng yalwaan sëñ Bamba mi waa yàlla de kenn natablu ne waa yàlla daal koy sarax ñet dërëm yi te bobu ñet dërëm mo fukki fukki junne yam ci jamono yoy moy ñaan naan Cheikh Ibra yalla nga doon mag mu am ñam yalla nga def nangam yalla nga dem mak yalla nga nangam Cheikh Ibra ne ko yow ya wara sant xawma borom ñet dërëm yi mo wara sant mom de ñet dërëm yi tabbi gim tabbi ci man bëgg ko won waye men maamam mu nekkon aljina amuko won tay tey na gi yëpp aljina la ni fanani señ mastar ñu ngi bët sàkket kon Cheikh day wone ku liggéeyal yalla fofu ngay toll foofu ngay toll jërëjëf jërëjëf señ Mamour sëñ Mamour sa gars yi aj nañ jotaay bi lool ñu ngi lay jaajëfal bu baax xam naa damay ñëw si sëñ xaadim ndax sëñ xaadim côté bi ma bëgg nga duggee mooy njëriñal liggéeyal Serigne Serigne Touba ca maam Cheikh Ibrahima Fall joxoñ ñu ko euh, nga xamante ni Euh, soo xoolee euh, réew mii ak réew yu bare ndax yàlla dogal na ni yéen seen mission maam bii ngeen di ngeen ngeen di tasaare yóbbu na leen si réew yu bare defal ñu benn jàngat euh, ci ci wàllu woowu waaye balaa ñu si ñëw sëñ sëñ sëñ Modou xam naa dañ lay sant bu baax a baax rek kàddu tàggoo yi loo loo ñuy tàggatool rek bu ko defee ñu ñu dalal sëñ Abdoulaye sëñ sëñ sëñ Abdoulaye mën a mën a àggali li des ci jotaay bi di la jaajëfal bu baax a baax nag tey bëgg lool lool lool ci njàng mu sell mi ak euh, taxawaay bu rafet bi incha allah. Ah, jërëjëf sëñ Alioune Badara ñoo ngi kontaan bu baax ci teew bii ñu teew ci jotaay bii di Jazboul Mouride nga xam ne day jotaay boo xam ne àdduna wërngal képp a koy seetaan yàgg nañ ko topp jotaay yi ngeen def ak suñu bàyyi jërëjëf mi tudd ak suñu bàyyi ñaandam mi nga xam ne yalla ko sama borom dool li taw fiix fa mu nekk nga xamne day jotaay bu nu yag bëgg sama borom dogal ko tay ñu tok bok ci ñi koy amal kon lolu sant nañ ci bu baax borom Touba waye no ngi siyaare bu baax suñ mag gi nekkal fi nga xamne mom lañ fi fekk bok ak mom bépp wajuru goor ak wajuru jigen muy sëñ Baye Dame Jong mom itam ñong koy siyaare diko ñaanal bu baax suñ borom defal ko ak bëggam gep di wax dal bëgg nañ jotaay bi niñ ko waxee woon ca tàmbali ba fepp fo leen ko bëgg yegg yalla ngeen ko fa yeggale tam bok ci jotaay yi sama borom gëna a gërëm barke Seexul Xaddim bég na lool di delo ñaanal seigne Muntaxa ak seigne Modou Fall Menda ak njabootu borom Touba gi cheikh ibrahim Fall gep ak kër yep yag fi lool ba lepp lu ñu yéene liggéeyal seen maam yooyu ñu defee ko nu ñu ko bëgg tan and ànd kook ñoom barke Seexul Xaddim jërëjëf seigne Aline bég nañ lool jërëjëf jërëjëf sëñ Mouhamadou Diongue kon ñu woy falal ko bu ko defee inshallah seigne sëñ Abdou Lahad jege si mën a ñëw ñu ànd ak moom jotaay bi seigne khadim sëñ Mamour euh, tubaarkàlla sëñ Ngañ mii kat war na jar naa neexal jàmbaar la loolu nag waaw ñu ngi ñëwaat si yow léegi sëñ Ngañ euh, sëñ sëñ sëñ Xaadim fi ma bëggoon ni ma ko junjee sànq ndax xam nga Sëriñ Tuubaa euh, ci ci barab yu bare fa kullu man xaddama nii aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara inna allazina saarau li xidmati walahum diyaaru wastal jannati وقد حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا اك يينيني بارب يو خامتاني والو خدمه نجارينو ليغيال سيرن توبا تي مام شيخ عمران فال جوخنيكو اك تاي جي نيكو نداو ني دي دوندي فيب سي بير ادنا بي بسم الله الرحمن الرحيم دين ني نداي سانتو باخ نجارينو ليغيال سيرن توبا شيخ لو ديسي ميساج لو بري تي بيد وي ماي واخ دا فا ديبوك سيرن شيخ عمران isin muridu laa yuridu abada xayru zuda rahman xay xasada ndax dañ na am murit dar waru kaa yitteel dul sàkku ngërëmu sëriñam rek te Seex Ibra si loolu la nekkoon si la teg si la nàmpatal ñëpp ndax day am mbir mu muy firndeel Sëriñ Tuubaa si boppam mos naa woo sëñ Mulaay Buso eh, sëñ Mbàkke Buso eh, njaboot gi nga xam ne ñooy ay mbokk ñooy ay mbokkam ak Cheikh Mouhamadou Fadal bëri woon nañ si njaboot gi ñu noonu wooye ba ñëw ñun ñëpp ñu toog mun leen dama leen xamal ne li fi nekk ak mbokk mayewu ko ak taalib rek koy may sëñ Mbàkke Buso ma ngi woon si biir nijaayam la woon ak mboolem xeetu mbokkam ya fa nekkoon daje woon fa ak i jarbaatam ak i doomam Cheikh Mamadou Fadal si boppam daal di jug daal di ñëw ba Sëñ Tuubaa dañu ko mbàkkee de maa ngi lay séeral de jur gii nga jur ma de jaay naa ko bis ni ki tey dindee ko ak taalibe kon dafa mel na liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy lépp liggéeyal Sëriñ Tuubaa tamit ci la góor yàlla yëpp rawe kon nga xam ne soo xoolee loolu day mel na sëriñ bi si boppam moo ko Seex Ibra dañuy misaalante ay mbir waaye nit ñi dañ kaa ràññewul ndax damay jàpp ne sëriñ Touba ak Seex Ibra benn bët lañ ndax soo xoolee bët dafa am lu say ñuul ak lu say weex damaa jàpp ne la say weex mooy sëriñ Touba la say ñuul mooy Seex Ibra waaw ñii seetaan nag te nekk si tuuti mooy xef yi ko wër xef yi am na bu jub am na bu dëng am na buy jamaati paren saa yi sa xef jam la yeneen saa yi nga gis xef boo xam ne day dëng nga jëm kaa jubbanti am na si xef yi moo xam ne dañuy jub jaaran loolu nag ni amee si xef yi noonu la amee si doomu aadama yi am na nit ñu jub am na nit ñu dëng am na nit ñoo xam ne tamit ci yeneen rek lañu nekk kon ñaar ñooñu dañu ñoo xam ne dañoo naqaree xam kenn mënu leen xam ba mag ñi sax am nag benn bis doon wax naan suñ Tuubaa de lu ñu war a mën a xam la Seex daan na ko doom kaay ma laabiri la ba mu ñëw mu ne ko doom Serigne Touba di ku ñuy xam fii su fekkoon dañ koy xam ñii rek ñoo ko xam dañ duñ ko wax fii mukk mun leen ñett ñii ñoo ko xam soxna jaaratullaahi mi nga xam ne mooy waajuram ak tubaab bii nga xam ne moo ko jël juróom-ñaari at yàlla yóbbu ko si géej gi jëm jëm jëm mënul dara ci moom mu dellu si waat ko ak taalib bi nga xam dañ kaa teg si kuusu bàmmeel te kooku lott na di jub di wax kan mooy sëñ Touba waaye doom sëñ tubaa si maamul war a xasri lillaahi fi jaddi danaa xamulee ne na suñ mbindeef yëpp dañ kaa def ci génn buum jox ko sëñ tubaa mbindeef yëpp sëñ tubaa moom moo moo leen yor daane ko doom suñ demee bu bis boobu ñuy wax yow ma laa tamliku nafsun li nafsin sayhan wala am da yow mi sindillaa ñu ni kenn mënu la fa kenn dara ku dul suñu borom subhaanahu wa taala waaye doom li ngeen xam ne suñu borom saa bu waxee rek teg na si faxaalum limaa yi di lépp si coobareem la koy defee waaye doom suñu demee ba dajale mbindeef yëpp ba yàlla dajale mbindeef yëpp julli ñëpp def ay sàpp malaayka yi def ay sàpp xanbiyaay yi ñëpp def ay sàpp daal def mu doon tar-tar boo xam ne bu metti boo xam ne suñ borom wàcce na ko muy moo ne mu tara tara tar la ñëpp jaaxle ba sonn yanant yi sax da ngay ñuy wax naan nafsi nafsi ndax dootuñ talati kenn ku dul seen bopp nee na mennum yanant bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy taxu daan ummati ummati ummati ngir yërëm xeet yi nga xam ne suñ borom mi ngi wàccee mbugalam mu tar mis moom mu len dom su boba ngeen xam kan moy suñu tubaab nee su boba suñu borom day dem tok si ses bobu ñuy wax kursi di jaayu nan tay kan moo fi mën yëngal dara di bakku dara du yëngut ñepp nek ci ay tartar neena boba dina jékki-jékki xol yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam neena mu am ak mbégte mo ak mbekté ci mom akum ñewante mom suñu borom subhanahu wa taala yenenbi mom ñewante yépp ci jamm si la mu jékki-jékki riir wuti suñu borom subhanahu wa taala mu ne ko dimbaleel xeet yi sonn nee na suñu borom daan na ko benn baatu ram de moo fi nekk teew laa koy jox. nee na yeneen bi ko suñu borom joxe ramm googu yàkkamti na yàkkamti goo xam ne bëgg naa ñëw ngir ramu jaam ñi waaye di daan tëll rek yem suñu jàmbaar ji Serigne Touba Xaadimu Rasuul nee na su boobaa mboolem xasida goo xam ne Serigne Touba mës naa jël daa def ko mës naa jël xalima def ko si biir daam ji tàmbali tagg Rasulullaahi nee na bayit wu ne day taxaw. bayit wu ne day taxaw antal karimu ana xaddimu dëxëram dim fii ko sa naay nee na foofu la jëf ji commencé ñëw nee na gis bu mawaahi bu miimi ya mu xaddimaat nee na xasida gu nekk araf bu ne dina taxaw nee na di sabbal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba yonente bi sabbal gi nga xam ne moom la ko xasida yi sabbal ak mbindum Sëñ Tuubaa mi mooy mujj ba fees dell ci moom ba amatul lenn lu muy def mu ne ko tey bisu maye ndax li mu yoroon lépp may naa la ko waaw daan na ko lenn laa yor luy maye muy ram mu di suñu borom jox na ko waaye rafaatal naa tey dama lay won lii liggéey Sëñ Tuubaa rek lu nekk si liggéey Sëñ Tuubaa waaye Sëñ Tuubaa nee na su boobaa su ma jëlee ram gi ne tëll jàkkaarloog daan neen damay yem si Ibrahima Fall nee na ma gis ñu bind ñu bind si jëb yi laa ilaha illallah muhammad rasulullah sahaaba yëpp daal di yéemu ak malaayka yeeg jinn yeeg ñëpp daan na jëmm ju mel nii ndax amoon na si ko suuf bay nekk fii turu yàlla wuréy wii ñu bind ko si jiwub doomu aadama mel na jant di leeral ñëpp kii mooy kan commencé yéemu Seex Ibra mu nu ko ramul jàng waaw nee su boobaa Seex Ibra dina ram mu jaam ñi ba nit ñi dinañ yàgg naa kii moom mooy kan waaw si jëf ju rëy moom la sëñ Seex ba wax moom mu ne ko jox ko say pexe Seex Ibra Faal moo di rijaalu jug na di war ba gis naa lu laayeen ku sopp daa bay sey na bu njaay Cheikh Ibra Faal moo di rijaalu laayeen jug di war ba gis lu laayeen diggante mbul saq ak sukeer lañ deen naa di Ya tax ñu tuub tel ca teel tuxal kan nga bon man daa du xeem diggante ñi keeg jamatin ya lañ daa daje naan bi ya tax ñu jébbalu ca teel fal njaga yaara yi pexeem waaw góor waaw góor sëñ Abdoulaye Thioune a ngi noonu mu mu mu jaare fu nuyoo rek bu ko defee sëñ sëñ sëñ fi nga tolloon am na solo loolu sëñ Xaadim mën eh, a mën a a wax dëgg yàlla asalaamaaleykum wa ñu ngi ziare kilifa jotaay bi di jiital ci ziar bi sëñ ah, Aliou Thioune di ziare sëñ Aline Badara ah, ak sëñ sëñ Mamoun sëñ Khadim sëñ Ngañ di ñaan sëñ Mountakha yàgg fi loolu te wér ak sëñ sëñ Amdi Fall yàlla na fi yàgg te di ziare suñu waajuru góor koy wax Baye Touba Thioune ca Kaolack ak soxna Ndey Ndiaye ah, moom sëñ Mor Thioune di ziar bu baax a baax a baax sëñ Modou Kéemaan moom sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi suñu la di wax dëgg yàlla di am mbégte loolu ci jotaay bi di xam ne moom Cheikh rek moom li ci sëñ tubaa wax rek moo ci nekk boo demee ba xam ne Cheikh Ibra du ku ñuy xam kenn gënula la ko xam Cheikh Ibra moom noonu la demee boo demee ba xam ne du ñuy xam kenn gënu koo xam ndax moom ngërëmal sëñ Touba doy na sëkk. sëñ tubaa gërëm na ko gërëm ko gërëm ko gërëm ko gërëm ko maanaam ngërëm loo xam ne amut yemuwaay loolu rek dafa doy sëkk ci di ab soññe ci murit waaw kon moom wax dëgg yàlla Sëñ Aliou Badara wax dëgg yàlla am nañ jotaay ci euh, mbégte ci jotaay bu baax a baax di am mbégte lool tàbbisi gi ngeen tàbbisi fii ci Touba Istanbul di siyaare jëwriñ baayam bi di siyaare mbokki taalibe yëpp waaw am nañ mbégte lool ci jotaay bi jërëjëf sëñ Aline. jërëjëf loolu mënu woon ñàkk sëñ Mamour sëñ Khadim mu ngi tolloon fu am solo. Mhm. waaw sëñ Aline xam nga tubaarkàlla jërëjëf <laughs> macha allah. Ousseynou moom kenn beneen mbir la rek. waaw waaye waaye sant rek sant rek di ñaan suñu borom nag. bu dolli ñoo taxaw baax a baax ndax lii lépp rek day wane sëñ Aline liggéeyub Serigne Touba Cheikhul Khadim. ndam li Serigne Touba am. waxoon nasaraan bi ne ko. li ma waxoon Sénégal danaa ko waxaat foofu te loolu yegsi nañ ci nag <laughs> ndax fii defe naa ne da nga da avion naaw lu sori door fa yegsi surtout fii ci Istanbul te foo dem ci àdduna bi itam moom la Sëñ Tuubaa wane na ndam li mu am ci àddina bépp kon noo ngi sant bu baax nag euh, sëñ Xaadim xam nga ak taalibe wax nga ko léegi rek mooy li nga xam ne Cheikh Ibra sëñ Tuubaa neewoon na sëñ Mortala loolu ak taalib des koy rekki waaye ak taalib borom da ko yóbbaale ak taalib rek lañuy bàyyi ci nit waaye nit bu faatoo léppam la ñuy rekki waaye ak taalib borom da ko yóbbaale kon taalibe gi rek am solo ndax moom la ñuy nawee nit waaye amul leneen ndax lu nit di jaay rek saay saay yor na ko te sax buy tuur ndox day taxaw kon àddina dara jëru fee jaay dara lu du ak taalibe te Cheikh Ibra Fall nag ak taalibe la gën a ak taalibe la rawe ñëpp ndax seigne Touba ba muy wax naan bëgg leen Ibra Fall ngir lima bëgg mba ngeen bëgg ko ngir lima ko bëgg mba ngeen bëgg ko ngir sax jëm ma bëgg nga xam seigne Touba neena so may jëm bëgg sax bëgg Ibra Fall te loolu bo xolé mourid bu bëgg dox bu nekk rek so lambe daj Cheikh Ibra ci mom walu Cheikh Abdou Karim Mbàkkeem seigne Fallu mo nako ko moo na wax ca émission Jës bu Murid te biir këram lañ ko doon defee ci kanamu sëñ ji Tall yal na yàlla doon li ngërëmam Jaaji keroog mi ngi toog mën nañu képp ku leen na murid saadix la ngeen làmb ko daju leen fi moom Cheikh Ibra Fall dañ ko ko jiñ waaye du dëgg saadix moom ku kuñ koy wooyee sëñ Abdou Karim Mbàkke sëñ Fallu nee nañu boo làmbee gis Cheikh Ibra ci moom daan na ñun dereti Cheikh Ibra Fall mooy daw sama yaram loolu loolu wax ne dereti Cheikh Ibra daw sama yaram koo koo daj ci njabootu sëñ Tuubaa gi rek looloo feeñ ci moom loolu la sëñ Muntaxa joxoñ barki dem nga xam ne bis bii mu wootee muy bisu Zikrullaahi keroog doomi sëñ sëñ sëñ Tuubaa ya fa teew kenn ku nekk yaa ngi dund cofeel koo xamante ne bii daanaka jégg na dayoo koo ci làmb rek looloo feeñ ci moom moo xam ñu ñëw ci guddi gi moo xam ñu ñëw ci bëccëg gi ba ci ñuy bokk ci kuréelu sikar sax kon Cheikh Ibra Fall mooy royukaay bi te waxoon nga léegi ne samaam wax na ne nee na ko yaay suuf Cheikh Ibra waxoon na ko wax leen ak man doom maay suuf Cheikh Ibra nee sëñ Bamba asamaan la nee na teen xool rek ngeen caab am wax leen ak man loolu mat di fàttali mu yi la ndax Cheikh Ibra nee na suuf mooy taatanal ñu amul ndab ku amul ndab ku ne suuf moo lay taatanal wax nga ko léegi maam Cheikh ne lu waay bu xëpp sama kaw lu waaye gës ba mu xóot def ci sama biir waaye lu yàgg ci man Serafal ne ma def ko muy suuf te suuf kenn du ko sopp muy leneen kon wax leen ak man daan na waaw baykat suy ñaan ku muy ñaan mag ñu ne ko xanaa yàlla mun a baykat su muy ñaan fan lay tàllal loxoom ñu ne asamaan Cheikh Ibra Fall na boobu ana yaakaaram ñu ne ko mi ngi ci suuf mu ne waaw lu tax baykat jël yaakaaram def ci suuf ba pare dëkki loxoom asamaan waaye Cheikh Ibra Fall nee na booba yàlla ko ful la ndax boo ko yàllay jox ndox nee daf koy tooyal waaye suuf la koy yónni su ko defee suuf ëmb ndox mi génne ko njëriñ naa wax leen ak man doom maay suuf motax tax mag ñi dañoo mas jaayante rek ngir fexé lak ngeureumal serigne bi soxla wuñu woon leneen samaam bi mi ñew da fess del waye serigne Touba mbër du feeñ kanam da daal di jébbalu joxé bopam koro bam jité serigne bi taxaw ci kanamum la yek ne ki di fecce ne ndab day tastakat lolu boko don top tay ji ba ci serigne Mundumbe mi nga wax léegi lolu mu wax yag na ko wax tay mbokk yi nekk Istanbul fii ñu ñuy leeral nanu jumaay njaareem jee plan bi fii lañ ko jëlee te ñàkkul danañ leen ko woon incha allah fii ci tur fii ci Istanbul ci Turki jumaa jooju 1918 dañ tax xeer wa keroog sëñ Mandoumbe mii nga tudd léegi moom la sëñ Touba waxoon na ko mboolem ñi sant mbakke maanaam kilifa yi li ñuy joxe ci jumaa ji nan ko bind ci carnet jël karne jox ko sëñ Balla Faali Jeng ne ko lépp lu seex joxe nañ ko bind waaye sëñ Mandoumbe nee na kayeb sëñ Balla Fally fees na dell waaye moom kaye bi mu yor nee na day xëy ba ngoon jot du bind kenn ndax kenn du wers mu nekkoon eskado ñii dañoo jàpp sëñ bi mbokk te sëñ bi nu mbokkum kenn bis ni ki tey man Mandoumbe Fafana laa sant mën a bokk ci donga yi ñiy cotisé dem bind ca kayeb sëñ Balla Fally jëng sëñ Mandoumbe moo Seex Rafal nañ daje saam googu ak dende yi am na ca daxaar gu fa ne koo xam ne dañ fa daa ñoom ñaar koro ba Seex Ibra jógee ci daara ji jumtuyaay yam doon liggéey sëñ Mandumbe la ko jox ñu bëggante woon lool la tax mooy mooy xam gim xam li mu bokk sëñ bi ba pare jaay bokk gi jënd ko taalibe loolu moo taxoon Seex Ibra fonk ko te ku ne xam na sëñ Mandumbe li mu liggéey ci yoon bi jumaa joojee mboole mag ñi ko doon liggéey kenn ku ci nekk jaayante nga ca loo xamante ne bii bañ agsee ci maam Cheikh Ibrahima Fall dégg naa ci làmmiñu sëñ Mourou Xayri Jaxate moom sëñ am sutu Jaxate mu ne keroog Cees la fekk Seex la pour wax la rek jaayante gi mag ñi def te jumaa ji fekk na sëñ Touba ñëw njaareem 1918 mag ñi waxtaan ak moom lu jëm ci jumaa ji diggante sëñ ma Mandumbe ak sëñ ak Seex Isaa Jeen ndax sëñ Isaa daa wax mag ñi wax nañ ne moo doon architecte bi sëñ Touba waxoon na ko nu nuñ bëgg jumaa ji mel nañ ko laaj Isaa booba sëñ Touba def na ci moom xel mi ak xam-xam bi ngir nu jumaa ji war a mel sëñ Moustapha Sall wax na fii lañ jëlee woon Coran bi fii ci Turki Istanbul gii ñu nekk tey te jumaa ji di ngeen di ngeen ko gis ci image yi loolu kon day wane ne Cheikh sëñ Touba lu mu bëgg mën naa am booba fii sori na de surtout ci mag ña ca jamono booba nga xam ne booba ay avion yi sax bëriwul xewul sax laay wax mag ñi am na ci ñu mujj defe naa jamonoy sëñ bi rek yàggul sëñ Fall bi ñu mujj dem màkk képp yaakaar naa ci ci ndox mi lañ jaar ci bateau yi lañ jaar kon booba ñëw fi yombul ah Escale Marseille Marseille dem nañ foofu ci hôtel boobu kon yooyu yëpp day wane ne kon man Cheikh Ibra Fall toog na fa njaarim ne sëñ Bamba lu mu bëgg mën naa am Baye Ibrahima Thiam ma ko wax sëñ Saliou Farsaw moo ma ne Baye Ibrahima Thiam ma ko wax sa samaama tuuf wax ko kon noonee sëñ Tuubaa bëggoon jumaa ji mel ni te mag ñi jaayante lii ngay wax taalibe ko boobu mag ñi dencuñu dara ba pare fu teeku ndax bisub altine ci sëñ Tuubaa teg xeer wa sëñ Maxtaar Bintaloo moo yoroon ndab la defoon ciment sëriñ bi dugg ca pax ma te xeer yu ñu tàmbali liggéey bi ñu ne lu waaye am na ko na ci def sëñ bi nag sasewul dara waaye nag lu waaye am na nga ko jaayante ñu fekk saam Seex Cees mag ngi nee nañ ba mu déggee xibaar bi te ku tedd ki yónnee ci moom ab xar la mag ñi wax xar mooy duubal booli daanaka la teg na nañ ko feesal ak xaalis ba Ibrahima ci am nee na lu waaye am def ca ba boo ca tegib dërëm mu daanu seex bi tëj ko ci jaayante gi lay dikk nee na ana ko mën a yóbbu gaal gi njëriñ nee ko ko na sojjat mu diis nga teg bay musa ñan ko ma nga xam ne ba muy jébbul la noon seerafaal sama doole laa yor mu lay jébbaloo moo ñëw na cas gal gi teg ci boppam wàccewaat naar ko cas serafal ne waaw góor doom ana Masamba Njaay waqi mu ne maa ngi ni mu jox ko fetal waraloo ko ci fas na ko toppal ci gannaaw musa ñan lu dox sa digganteeg musa da nga ko fetal bay musa ñan ko lu yanu gal gi sëñ Masamba Njaay waqi yor fetal war fas si topp ci gannaawam mag ngi ne nañ keroog ba mu yenni koo gaal gi deru bopp ba xalti ko ànd ak gaal gi moo tax Baye Moussa Niang kool na bascule ba daa gën a siiw waaye gaal gaa gën a diis te bascule ba ma nga ko yonoon njaarim ba Gébu Fall nee na keroog ba ñuy peese dugub bi sëñ Bamba ci ci Gébu saam seera Fall ne ana ko mën a bii Gébu Fall te diggante njaarim ak Gébu ëpp na Tuuba Tuuba njaarim ak Tuuba nee na Baye Moussa Niang ne ku ma ko yan ma dem ñu yen ko ko nee na bi ma ko yenoo nee na bay dox nee na ci yoonu suuf bi mooy diggante boobu jëm dindi bu gut ku mu indi war woowu nee bi mam saam cheikh dajje comi nee na maam mi nga auto bu ñu wax dots na sëñ Modou Fall benn ko doon dawal nan ca bir nara jalal nana jamal mi mam paxara rabbi samay yi bi mo romé na ma Moussa fekk ma gébb nee ba ma li auto bi yanu rombo nee da melni yanu tuma nek ndekete poids ba la seex ba yóbbaale ko mbaxana ci bop nee biñu ba ci kanamu sam cheikh ma ko ñu ne nañ ko yenni ne mag ñu ne kër kër kep na sama kanam Baye Moussa ne ma wax ci sama ci sama lamine ci kaw ne dul cheikh fall waaw gor do Moussa gor bu tangal wax deug la nek te dul ñen fuk la nek te dul ñen fuk la señ señ han ah? waaw del 4 waaw 6 lam 30 te dul ñen fuk la ndekete doole ñeen fukki góor la ko cheikh fall defal ci yan boobu moo tax waaw kii si yàlla jërëjëf sëñ Mamour tubaarikàlla wax dëgg yàlla xam naa ni nit ñi def sax moy waxtu xoccu nañu lool señ khadim tolon nga am fo am solo sëñ Maodo moom fi mu ne nii ay gëdante na aj baar bi rek incha allah nu bàyyi la nga wëyal foofee eh, ci ci ci ramm gi nga xamante ni sëñ Tuubaa rafaatal na ko moom Cheikh Ibrahima Fall eh, keroog bis boobu nga xamante ni loolu yëpp nag eh, xidma rek moom moo ko waral liggéeyal sëñ Tuubaa ak nangoo doon taalibe xam naa ne foo daanalee foofu ñu jox sëñ Ablaat ndeysaan ñëw si ñu jox sëñ sëñ Ngañ te ñëw sëñ Ablaat mu ne mu mën a teg jotaay bi comprendre rek waaye xam ni ci kanam lañu comprendre moo tax nekk di télé télé di wax dañ leen bàyyi rek moom fii lu fi baax Sëriñ Tuubaa ak Seex Ibra waaw ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa dañ ne yoonu murit tey su fekkoon am na dañ naan bayit wi mooy carte d'identité bi li xabdil muridin saadixin loxumo di xidmati aw bi aw xaddiyaatin waaw jeex na waaw li xabdil ñeel bépp jaam muridin nag mooy kanam ma dem si yàlla di nga gis sax koo xam ne bokkul si yoon ñu ne ko murid nga mu naan duma murid waaye boobu daa umpale moo tax mu ne nit ñi dañoo waaye nag dañ ne murid saadix nan lay mel Sëñ Tuubaa mooy wax waaw nee na saadixin loxumoo bi xidmat yi nee na murid dëgg dëgg dëgg daf may liggéeyal bi xidmat yi aw bi xubbin aw bi xubbin wala mu bëgg ma aw xaddiyaatin muy joxe àddiyam moo tax murid ñu dañoo war a gën a yokkaat seen pas-pas seen digganteeg sëñ Touba roy ko Seex ba ndax yoon wi bëgg sëñ Touba ak li nga am nga jox ko sëñ Touba rek moo fi may dara seen Touba kenn waru kaa dencal dara loo am danga kaa war a joxe nga xam ne sëriñ Touba dafa yey mag ñi nga xam ne ñoo ñoom la nekkaloon ak nga xam ne sariya mënu kaa jëm ndax baydu yi soo déggee ni mu ko waxee rek lil Moustapha nawaytumaa yu jaddudu sunnatuhu xaraa wi ni ahmadu kooku moom ay mbiram daa leer bokkaaluwul fenn si yàlla dafa ñëw yeesi laa sunna si rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon ku mel noonu ku amee su amee ku mel ne maam Cheikh Ibrahima Fall am ku mel ne sëñ Issa Dieng am suñ Daaru Assane Ndiaye am maam Cheikh Anta am suñ Moudou kon kooku war nañoo xalaat ba moom mooy kan waaw kon nga xam ne yoon li fi may dara mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek te Cheikh Ibrahima si la rawee ñëpp ndax benn bis am na koo xam ne si mbokk yi la jege sëriñ bi lool mas naa ñëw sëriñ bi ne ko de Mbàkke de dañoo bokk ak yow waaye dangaa yor jikkoy ron jikkoy ron waaw sëñ Tuubaa ne tekk as ndiir mu ne ko lan mooy jikkoy ron mu ne ko ron day màggee si kër yaroo si kër ba ne léegi di këral ñi si bitti waaw Tuubaa xam na la mu ko wax mu ne ko waaw kon de baax na waaye dinaa la yebal si Seex Ibra nga dem seetu daan ko bi sàngam na nga dem seeti Cheikh Ibra Cheikh Ibra moo koy tontu ndax Sëñ Tuubaa moom daanaka ay tont daaw ko def waaye Cheikh Ibra koy tontu ndax Sëñ Tuubaa da kaa bëgg dimbali mu jëbal ko Cheikh Ibra bi mu ko takkee aw fasam di ñëw Cheikh Ibra Cheikh Ibra lu ku yàlla mayoon la ndax fi mu toll si diggante moom boromam yëg na ni am na lu bokk sëriñ bi du fi ñëw mu woo soxna yi ba ñëw mu ne damaa bëgg ngeen dem si dàgg ja wutal ma dugub bi des tàq su lu ñëwee ni ngeen ko bëgg tey soq ko tey sabati ko tey tey ko cere tey cere tey lépp na doon si bis bi waaye bu leen si tuur dara bu leen tuur cox bu leen tuur sabet bu bu leen tuur dara te na ngeen dem ci ut ginaar ngeen defal ko ba mu baax ndax kii di ñëw de day kenn ci man bu kilifa googu ñëwee bu nuyoo ñu ko waaw jëmm jii de wuti wuti jëmm jëmm ku tedd ko dara de sa jëmm lépp sëñ Bàmba la may xeeñ ñoom ñaar ñun nuyoo saafante mu dalal ko defal ko lépp nekk service ba waxtu xéewlu jot Seex bi daan indi leen xéewal yëpp ñu ngi xéewal yi teg lépp ñu def ko si ay ay ndab daal koy ub waaye Seex day jàngale ba léegi da xam ne kooku mu ngi Sëñ li ma doon wax naan bët lañ ne bët la rek lay ñëwul fee ak la fay weex rek lañ waaw umpale wuñ si dara biñ ñëwee ñu teg ndab li mun ko bisimilah ñu xewul ma waaye lii de ay mbokk lañ bi ñu commencé xéwlu ne ko ah si xéwlu gi de macha allah si xéwlu ci bisu jox bi sotti ne ko bisimilah lii de ay mu tànkaat si sebet ne ko bisimilah yaaram lii de ay ay mbokk lañ waaw sëñ bi na teg mu ne ko mu ne ko Ibrahima Fall liñ ma doon wax de sa wér gi mi nii. def nga si teraanga bu noppi waaye yàqaat nga ko Cheikh bi daan na ko fii dara du fi yàqu des fii defaree daan na ko nii ñëpp ñoo bokk benn mbokk lañ mu ne ko waaye déggoowuñu mu puus ndab loolu mu ne ko kaay mu wax la lu déggoo ko daan na ko daan na ko dugub ji ñu ko jëlee sa sàq ma moo bi ñoo bokk benn ndey benn baay ñu ñu ñu dubb ko ba mu mokk jël ndox jaarale ko si diggante bi sebet ko ba mu bañ tàqali ko ñu def ko cere ju baax ginaar gi ma nga jóge si ngunu la xorom si ñu def si ma nga jóge si dex bi waaye lan moo ko waral mënu ko déggoo mënu ko sëñ bàmba dañuy déggoo moom waaye kenn du bokk moom waaw nga xam ne sëñ bàmba déggoo rek liggéeyal rek liggéeyal rek moo la si mën a may dara kon nga xam ne yoon yi war nañoo gën a am passé fu baax a baax a baax nga xam ne suñ Tuubaa amul mbokk dëgg la sax si saayir nii waaye amul mbokk mbokkum sëñ tubaa dëgg dëgg dëgg mooy nga jël lépp jox ko sëñ tubaa di ko liggéeyal waaw mooy ci mooy waaw sëñ Mourad Ablaye nee na mhm. Cheikh Ibrahima nee na mhm. sëñ Bamba bu doon am na mbokk mhm. man Ibrahima Faye maa kon jeex na waaw ah, sëñ waa sëñ wax dëgg la <laughs> waaw <laughs> maa ngi vidéo bi te weeru koor wax wax sëñ Bamba Cheikh Ibrahima Fall nee na Cheikh Ibrahima Fall nee na sëñ Bamba bu doon am na mbokk man Ibrahima Faye maay mbokkam waaw loolu waaye sëñ Bamba la Bamba tee ñu baab wéetali ko yàlla ba dem baab keroog la bamba teeñu fab yanam ba wéttali ko yàlla ba dem ma yomba ngir bëgga rambu jamono yi yeneen ba tuba li man balla xa moo di yeen ba yan bañu yenoon xutbe ya ak labdaar ya taata nuñ ko moo ko fab raw gaaya am lu ma ci mottali rek ci sëñ Maamoun boobu léegi ñu ngi koy junju sëñ Modou Faye ma tas takkaat bi ma am lu ma si leeral tuuti rek dafa dëppoog mbiru sëñ Cheikh Ibra sëñ Ahmadou Faye ma bi mag ñi di jaayante sëñ Touba daa fekkoon sëriñ bi yónni ko mu génn dem utali ko ay téere ndax moom daa bokkoon ci mag ñi nga xam ne da daan jàngale si daari Mamour Anta Sali ndax Mamour Anta Sali nijaayam la gi bi Touba bu rëy boobu nga xam dafa ne képp koo xam ne jàng la fi indi maanaam tey damay yóbbu nit ñi si lu gën a kawe loolu mooy yitte ñii ñii toog ñii dem sëñ Modou Faye jamono jooju fekk sëñ bi yónni ko ñii ñëpp daal di jaayante ñu bari jaayante si ginnaaw moo tax suñ ndaam Abdourahmane loolu nee na sëñ Modou Faye mooy juróom-ñaari njëbbalu sëñ sëñ sëñ Touba bi mu ñëwee sëñ Touba dafa ne ko daa am lu xew si ginnaaw mu ne ko mbaa jàmm la mu ne ko jàmm rek mu ne ko kon mooy lan mu ne ko jëbbalu moo fi xew mu ne ko mën nan laay jébbalu sooy déyanteeg sa borom mu di ko dégg Sëñ Tuubaa na ko dégg ndey loolu de fekkee ndey ko gën waaw soo bëggee suñu borom bol la ci sëñ mu dafa nag wax jooju daal koy frappé nag ndax tey nit ñi nekk fii di waxtaan ku nekkoon ci bunt ba mën nga ñëw dégg waaye mënoo ñëw gis mu ne ko jotaay bi soo si bëggee bokk nag nooy def mu ne ko jébbalu moo tax nga bokk si jotaay kon jébbalul rëy sëñ Modou Fadiama daal di ñëw jébbalu sëñ Touba jox ko boppam sëñ Touba daan na ko boo fekk sëñ Modou Fadiama borom xam-xam bu mag la woon xaalim la woon xaafis la woon mboolem bi nit ñi di xam xam na ko kuy dem ba malaayka yi suñu dee déggante déggante yàlla sax mu koy dégg kon kooku am na cër si diggante moom borom waaye loolu lépp day ñëwaat Cheikh Ibra rek moo moo yëmaat nit mu daan ne ko kon léegi dama lay tas takkaat wala ma cuuj la sëñ Touba moom ko demandé sëñ Modou Fadiama ko lan mooy tas ak cuuj ne ko cuuj de mooy néegu ñax boo xam ne dafa dem ba ràpp bay waaj daanu boroom néew doole si moom wala mu lott si moom mu jël ab bant jam ko si digg bi pour mu téye ko mu bañ a daanu waaw mu ne ko la mooy testakaar mu ne ko mu ñu daane néeg bi yépp utaat ñax mu bees utaat xànc yu bees ba defaraat néeg ku ñëw xam ne néeg bu bees la si muur faaji bi ne ko tas ma takkaat kon boobu xam ne kuy sëñ Tuubaa waaw sëñ Tuubaa daan ko ku regg sub sox bu ko jox ngën gi ñam nooy def ba mën kaa jëriñoo si Modou Faye mu daanaka xanaa de nga wëcciloo ko mu ne ko bisimilah waxtu wu timis jot mu dem wax sëñ Modou Faye mu ne ko demoon fee nga jiite mbooloon sëñ Modou Faye ñëw taxaw di jiite mbooloo mi ak ëllëf nekkatul si bopp bi mu dëpp génnaat daanaka sama waa ji di tàmbali na ci man mu di ko gorloo di ko liggéeyloo ba wàccee ko. ko gorloo di ko liggéeyloo nga xam loolu rek mooy jëriñ si kër sëñ Tuubaa est-ce que ak cër bi mu amoon si kër sëñ Tuubaa muy mbokkam di léppam nag mu di ko gorloo di ko liggéeyloo ak di ko rondoo ndaay ba xëy wàccee ko bi mu ko wàccee dafa ne ko yàlla gërëm na la yenente bi gërëm na la ahmadou faajo mu ne ko mbàkki mu ne ko wàccee naa la si lépp ba mu des nga di ma ñaanal nga di ma ñaanal kon kooku amoon na cër si diggante moom borom kon kooku su ma nee taxaw daal ne ku karaw bopp laa jëm ak yow kon kenn xamul ko si rek duñ ko xam fii jërëjëf sëñ Khadim yan kàddu ngay ngay tàggoo rek si jatai bi waaw kon sëñ Aline Badara Ndim ñu ngi sant bu baax di gërëm si jotaay bii nga xam ne jotaay bu am solo la mm-hmm. te yàlla bu mu doon suñu mujj mujjanteelu jotaay si barke sëñ Tuubaa ah, di sant sëñ Maamun bu baax mm-hmm. ah, ci ni ma ko waxee woon sama commencement rek ci mm-hmm. seen yar ci seen baax ci seen teggin ak bëgg Seex Ibra ndax man ko bëgg Seex Ibra ma lay bëgg nga ma ràññee ba léegi Seex Ibra laay xencu fa ma dëkk sax ku fa am cër laa mën mii sëñ maa mun xam na si dara waaye maa fay bàyyi faal ba waaw maa fay bàyyi faal ba waaw ndax man Seex Ibra dong moom a ñor waaw di di di di di sant sama doomu baay ju baax ji sëñ gañ waaw di jàmbaar loolu wax dëgg yàlla macha allah moom rek jotaay bi mënoon naa yem si moom rek ndax macha allah di sant sëñ Abdou Lahat euh, ak sëñ sëñ Modou mi fi toogoon di sant si am di géey mi nga xam ne mooy euh, kilifa kër gi di jëw jëwriñ sëñ Touba ak sëñ Ansu ak mboolem taalibe yi fi nekk yépp maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm euh, di ñaan daal si barkeb sëriñ Touba yàlla na fi sëñ Muntaxa yàggu lool ak euh, sëñ am di mi nga xam ne mooy Cheikh Ibra Fall si ko suuf sëñ am di nogoy ak mboole sëñ sëñ waaw waaw waaw ñoom ñëpp yàlla nañ fi yàgg si barke Xaadim Moustapha di sant mbokk Istanbul yi nag ndax damaa ñëw fekk leen fi man ni may doxee mooy ab taalib rek laay doxee mhm. du ma wax kenn sama bopp ndax amul njëriñ ñu ñoom su yàggee rek dinañ na xam ndax li Sëñ Tuubaa def ñun xam nañ ko mhm. moo tax kenn du xam suñu soxla duñu rang fenn duñu seeti kenn lu ñu suñ tubaa defal rek doy nañu ñoom tamit ñu ay nit ñu baax ñu jàpp ma ngir Sëñ Tuubaa teraanga ju ne nag defal nañ ñu ko fi ñu ay nit ñoo xam ne dara ñoru leen dul Sëñ ba si Baay Faal yi ñoom koor gi passé ñoo ma invité ndogu defal ma ndogu loo xam ne foo ko natt weesu na bëgg ma lool waaw ñoom jëwriñ fa yàlla ay ñoom suñu xaadim Diop suñu Ousseynou Baye Fall su ma leen dee lim du ma yëggal waaw ak ñoom suñu Babacar ñi nga xam ne ñoom laa nekk loon ak Cheikh Jenn mi nga xam ne sama xarit la moo ma defal lépp ak ñoom làmp ak sëñ si la ma nga ma nga Dakaaru ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm Istanbul daal wax dëgg yàlla man mënuma leen a fay waaye bàyyi naa leen Serigne Touba ak Cheikh Ibra yàlla nañu yàlla te defal ñuko ko tawfiq di leen gëna a sant bu baax baax seen yoon yi yalla na leen tesante ngërëmu Serigne Touba ak ngërëmu Cheikh Ibra wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh khadim jere jeuf euh sëñ Gañ yoy fofé rek manam euh, lo ci sof ak yeen kaddu ngay taggo rek ci jotay bu am solo bi nekkoon ak Cheikh rana Fall te xam ne njariñ bi rek Cheikh Ibrahima la ndax Cheikh Amadou Lamine job dagan bis da koy maasloo ci njaareem muy mas ba tollu fo xamne da yakane serigne bi dafa joom waw muy bamtu di bu tolle foofu rek day taxaw serigne bi ne ko ahmadu ndax fofu dafa aajo defar nee na Cheikh Ibra ngi ci geneen kees serigne bi di liggeelo te nekkul fim nek fi mu ma dégg Cheikh Ibra nan dedet mbacke mom mi defene da nga joom mo jar defal neena na sama ngeum yokku na ci serigne Tuubaa ba dootuma laaj denen neena na bis jot serigne bi di ma maslo ma deg mu nan jibrilun mikailun xasra ilun ne man lan moo tax mu def noonu sama xel dem ci sama bëccëg baak Seex Ibra waaw ne ma ne ah moom de lu mu def noonu la ñu ne ma kaay wuyu sëriñ bi ne ma ñëw sëriñ bi ne ma maanaam soppil noonu yi ñu ma ñu ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ne moom moo war a wax jibrilu waaw man mi kaa i nun laa war a wax ndax naxaar la ma sama borom wan malaayika yi muy bëccëg dara kàmb waaw ne ne laylu lan wan rasulullahi jibril muy guddi moo tax man jibril nun laa war a wax kon kooku Seex Ibra defal ko maam sëñ ma dem ci njaareem dafa am ku masa may soxna ci biir kër Seex Ibra waaw mu am juróomi kii rek maanaam xaw a am xaw a wasit maanaam kër gi xam am na ci ñoo xam ne dem ñu foo fekk am na ci ñoo ñoom melul nan war a mel waaw am ñoo xam ne dañ ne nan dem ci diw mu yóbbuñu ci sëriñ bi moo ñu lan la ci sarixa wax waaw nee na danoo dugg biir kër sëriñ bi rek sëriñ bi ne kuy seen kilifa ci fere yi ñu ne ko Ibra Fall mu ne dellu leen balaa yëg ni ñëwoon ngir nee biñ ñëwé ñi ngi fekk Cheikh Ibra tok ci digg kër gi nam daan toogee señ Mamoune mi xam na xam na nam daan toogee nga xamni kurel lay def tok ci digg bi ñepp wër ko amul nuyo mayal sama rom mu ñëw nuyo amul ci bi kër Cheikh Ibra waaw waaw moom kay moy fu ko neex bang bobu non señ fallu Fall señ sëñ Moussa Fall ko daaj waaw ñoo ñoo ko liggéey njabotam neeg bu señ Touba ah, ma sa dëkk ci Thiène Jolof ñom ñoko liggéey ne day jek jek ne adom xetuk señ Bamba may ngi de mhm. waaw xam nga fi jamono tollu bu ñu ne xetuk señ Bamba may ngi rek ñu ne xeet xeetu nit lan la koy lan la koy xeeñi te ab yonentoo ko wax inni la aj na réex a yusufa yonent yàlla yaqooba mu njëkk taxaw ne xeetu yusufa ak may xeeñ waaw sierafal delloo si suñu na xeetu sëñ bàmba ak may xeeñ lan ne adoom yéen di samba booy ana lu xew ñu wax ko li xew ne ko kër gi wax ko ne mu demee yëpp mu ne wax ngeen dëgg de ma de lan moo tax séex bi daa wax naan jàngut te jeexal téere yi waaw maanaam xam nga njare ku mokkul soxna ma ku mokkul arxuraan du la may soxna ci biir kër gi njare suñ maam mi xam na li may wax waaw bu dee jigéen sax doo am borom kër ba mokkul alxuraan kon kooku mu ba may jébbalu ci sëñ bamba dama kaa jébbalaale loolu dootuma ci wax dara ba mu yaakaar ne soxla naa ci hmm. ne ah xëy na ku jàng ñëw dimbali ñu nes rek ñu ne sëñ ma dem maanaam faal moo lay nuyu mu ne ah kooku jàng na bu ñëwee wax lu ci diine wax sëñ ma dem daa nuyu sëñ bamba daa nuyu séexab la séexal na ko wootab yàlla gën bu nuyut di woo hmm. mu ne ko yàlla woo ma de faal yaa ma woo de waaw ne ko ba may jub ci kër gi dama ne safoor bi nan teggi Seex Ibra Faal ndax ku fa jaar da lay téye waaw am lu ma dee ne ma ku teggi Seex Ibra Faal ëllëg yomal xiyaam lu yàlla di séddale dalay lay teggi daan ko loolu ma fi jaar loo waaw mu ne ko wax nga dëgg de waaye daf koy fekk masala daan ne ko wax leen ko ni mu demee ñu wax ko ni mu suñ ma dem na ko sa xade mokkal naa ko lool moom xeet diine yëpp xam naa ko waaye saw yoon daal feruma ci basin siixewal na ko mëddem sa xam-xam tay la ko sama borom do ko nangu ci aras hmm. bis bo waxoon ben bat ci sama yoon ma xam dañ lay jey xamou dara kon koku Cheikh ibrahim dimbali nako fofu manam Cheikh ibrahim dañoo dimbali ñun dañu dañu dañu dimbali dan na diw ana loo wax mu ne ko man di bëgg na sama soxna wax jey bari rek mu ne demal nga denc ko bu dee jigéen nañ ko tudé nday seen jaay sama nday ju bax ja bu dee góor ñu tuddee ko man ibrahim Fall yomal xiyam ma def ko ci goor ñi def di di ba xam kan mo ci tek baat waaw day wone ne liggéel seigne Bamba da ngay liggéel seigne Bamba ba am lool loolu la Seera Fall doon doon misaal xam daa wax dafa xaw a xat sëñ Ibrahima maa ngi a yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ma wàcce fii ci jamono waaw di leen siyaar baax a baax ndax su ma melee nii ñoo waaw ndax ñëw gi ma ñëw jamono sama borom ñoom la ko jaarale kon su ma melee nii rek mooma waaye di siyaar nag waa kër Sëriñ Bakki Madina waaw nga xam ne moom ñooy suñu lépp waaw di ci jiital nag sëñ Cheikh Bombali di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi ba ci njaboot gi rek su ma ko tuddee tudd naa ñëpp rek waye di siar bu baakha baax jëriñ Mor Ndiaye mi nga xamne mom moom ci commencement bu ko fàtte waaye mu la waroon di jital nga xamne li lepp moma diko di ko bu baakha baax waye di ñaanalat jëriñ bay am bi waye di siar nak wa keur seigne Ablaye Fall Ndar ndax ñom manam fiñ ma tek te bi tax dama ko xam bu baakha baax waaw seigne Jili Kiné mang ngi koy siar bu baakha baax waye di siar seigne Cheikh Sey Fall waye di siar Mam Lamp di len siar bu baakha baax waye di siar wa keur seigne Cheikh Fall Baye Góor waaw ndax ñomit desane seigne sëñ Abdourahmane Fall seigne Sohebou Fall ma ngi di siar bu baakha baax di len ñaanal nak ci seen liggéey bu maam bi sama borom defal leen ci lu kawee seen joor di tub bu baax a baax a baax xam naa di ko tëjee lii de lii xalla xalilu Cheikh Rafal Kamalu Habdal Taqima Seydi Rijaalu te góoru yàlla yéege góor fa yàlla ku mooy ko ko yéegi du gis buur yàlla góor jàpp ci góor góor yéegi góor ka yéegi góor ñaay bàyyi Abdou Sakkoor Sidi Ibrahima Fall bàyyi sirf rek ay góor ka lankat lan ci yàlla ba tasaare ngir ya siraajul awliyaawu xutbaa bi len bi yaaw tawfiiqul axtiyaaw xàll faaloo nooru xuloo mi wanoo dun wa sirru mu dabirul umuru xallafaaloo sa leer gi yàgg naa fés sa jagle yàgg naa des waat naa ne yaa di aw tus xallafaaloo ku jiitu yaa ko jiital ku àgg yaa ko àggal ku regg yaa ko nampal bàjjafaaloo ña jàngi woon siin ña génne say tuun ña reere baa siin ab laaja ngi tës liggéey ba yeggal fab lépp jébbal te amuloob lal maseefu koo gis di yuli say mbuus di wëq say poos géejal te doo noos maseefu koo gis Seex Ibra laa wax jii junj moo tax mooy mbootu wiccax tontul te bul gis te boo ne maa waaw tontul tanay gaaw jërul nga ciy ñaaw monsieur fu koo gis doo julli doo woor ñu may la soorool ba sut fa kër buur monsieur fu koo gis wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Maodo waaw sëñ ngañ mii daal na ko suñu borom gën a dolli tawféex jàmbaar la lool wax dëgg yàlla nee na nee na bàyyi shérif rek kay góor sëñ Mamour xam naa foofu la ñuy tëjee jotaay bi incha allah bu ko defee eh, sëñ Ablaat yëkkatal ñu lenn say abyaat bu ko defee ñu mën a yëkkati jotaay bi. waaw jërëjëf moom tey xam nga signalé <coughs> euh, ndeysaan tey Cheikh Ibra Fall xam nga njabootu boppam gi kenn ku ne daa wax ci moom dara Cheikh Ibra njabootu boppam gi kenn ku ne am na lu mu wax ci yow ndax. سريف كو داي وارلا شيخ رفال نينا شيخ بلاي فاندر شيخ رفال نينا شيخ بلاي فاندر نينا درجة سيدنا أبو الخديجة يعني نينا سريف كما قلت بدر لا Sëñ Aliou Fall Mbawor ma xamam Seydina Aliou la te daana wax ne man mii maay Aliou mu njëkk ma Cheikh Ibra Fall nee na ne sëñ Mbàkke Fall sama borom moo ko fayee nee na Modou Fall mbend sama borom moo ma ko baaxee waaye nee na Abdou Sakkoor nag maa ko sàkku fa sama borom bàyyi Cheikh Kana ma ko wax de motax ken kenn ku nekk ñoom boko tuddé rek da ngay daldi mëna mën ñu bare bare bare ci biir njaboot gi sa bi ga nek cheikh ibrahim neena ay nelawam day neena day neena day sa buy nelaw mo ngi diyaaleeg boromam motax mu ne ngunda buy nelaw bu ko kenn yee neena na bu yeewoo nag ku ko saaju faju bay me ken xande ma ko wax moy wajuru seigne cheikh fall ngunda sun sang bu baax bobu xamni fi yeen baayam mooy caatum Cheikh Ibra ngunda saa bii nga tudd yaay debbo saaree ndeyam Cheikh Ibra Fall nee na ngunda buy nelaw ma ngay diyaay nekk boromam nee na waaye bu yeewee ko gës saajo fajo moo tax Cheikh Ibra nitu yàlla yëpp xam nañ ko borom cër yëpp xam nañ ko sa lii sëñ bi wax léegi ñu weex ñee gën a xam Cheikh Ibra Fall te sëñ Aliou Badara yaakaar naa jotaay bi mu def France ak nasaraan yooyu li wax ci Cheikh Ibra néewaa na néewaa na néewaa na ñu ko wax de fii ci naar yii tey soo jaxasoo na moom dëgg dëgg dëgg dëgg nga wax la kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne ñoo xam Cheikh Ibrahima waaye nag firnde li sax nag mooy Sërif Abdourahmane Fall Tilala la ci seede koo xam ne direct yonente bee daw sa yaram te maa ba tey mu ne man sot yoon sa salaa salaam laa waaye Sidi ko wax ah ah jeex na tàkk nee na fekk na leen fi wax leen ko kon kon Cheikh ra kenn umpale ko malaaka yi xam nañ Cheikh ra jinne yi xam nañ Cheikh Ibra lu yàlla bind xam nga Cheikh Ibra Fall kon nag kooku topp ko ak roy ko ak sopp ko rek ak bëgg ko mooy lu nu war suñu digganteeg moom waaye gars yi xam nañ Cheikh Ibra ñëpp a ko xam ahlu Badar ñëpp a xam Cheikh Ibra Fall kenn umpalewul maam Cheikh Ibrahima Fall ndax magam ñu ñu ci baree baree baree bari fekke woon nañ la xewoon ca badar te it am naa lu ma leer ci ne koroog ba muy bayal sëñ Tuubaa ca gébb fal ba noppi war a peese dugub ja ñu ko bojj na xiin wa sàqi wa ko góor gi ma fal kumba ñoom ra waxee daa daal wax nañ ma fàqal am rab ñu fàq rab ma seerafal lal ko ci néegub càkk daal defeenu boobu ma ngi diyaalik boromam ba mu ye ba mu jógee xiin wa naaw waaye Abdou Niang moo ma ne maa nga taxaw keroog seexu na xeexee doom Mikaay dama ne ko bul tooyal dugub bi sëñ Bàmba bi mun ma jot naa ndigal fépp laay tooyal seen maam nee ma weesu ko fa dem ci ko ko jox ndigal ñu fomm taw bi waaw kon nag dafa mel ne ku umpale Seex Ibra amut ci àddina noo ngi sant bu baax sëñ Aliou di jaajëfal bu baax ci barkeb jotaay bi jëre jërë jaajëfal nañ ko bu baax a baax mbokk yi di jaajëfal mbokk yi ñu doon euh, teewlu si jotaay bi yëpp rek xam naa ne sëñ Ablaat moom euh, ndax suñ ko joxee kàddu gi bu yëkkatee rek bu yëkkatee lenn si ay ab rek fa la ñuy jaaree daal di ñaan yëkkati jotaay bi moo tax ñu ngi koy sant bu baax di santaat bu baax a baax sëriñ Xaadim Ñang euh, ci daraje jéeg maanaam judd bu kawe bi macha allah waaye jaay lépp jëndee ko taalibe ak euh, te gi nga xamante ne moom la ñu wan ba ànd ak ñun jotaay bii wax dëgg yàlla di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal sunu borom dolli cëram ci maamam si barke bu maam Cheikh Ibrahima Fall. sëñ Ngañ ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu boroom gën laa sàmm xam-xam bi rafet na gëstu bi yaatu na yàlla na suñu borom gën a dollee kàttanal <coughs> jaajëfal bu baax a baax sëriñu Mouhamadou Diong mi nga xam ni moo toogoon fii sànq moom it yëkkati fii lu am solo ci xasaayid ak euh, wolofalu yi nga xam moom lañ jagleel Serigne Touba ak maam Cheikh faal Fall ni ñuy jaajëfalee Serigne Abdou Lahad Thioune waaye équipe technique bi nga xamante ne ñoo doon jàppale si liggéey bi di Serigne làmp euh, Seck ak Serigne Ablaye Ka ñi nga xamante ñooy nekkoon ci wàllub euh, caméra yi euh, waaye it Serigne Basirou Sarr Mbuub mi nga xamante ne moo doon réaliser te jotaay bi waaye lépp nag si jàppandalu jëwriñu audiovisuel di Serigne Jili Mbóoj fii ci Touba Istanbul mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk si njiitalu jëwriñ Baye Amdi Gueye di ko doole jëfal moom ak Baye Ansu nga xam liggéey bi fii waaye it euh, jëwriñ euh, jëwriñ Mor Ndiaye mi nga xamante ni yàlla dogal na ni moo jiite liggéey bi ci ñi nga xamante ni ñooy waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem seen euh, sëñ Abdou di suñu wëllëre bu yàgg fii ci Turquie di ko ziar bu baax a baax moom it sëriñ Mamor Badiane maam góor Badiane ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ñoom it ndax suñuy wëllëre yu yàgg lañ fi ci turki ak mboolem mbokki taalibe yi nga xamante ne rek ñoom lañ fi bokk nekkal ak ñoom lañ fi fekk eh, di xam ni suñu ñëw bii fii eh, équipe bul Mouride xol sedd na si te incha allah lii ñu fi wane ak leneen li ñu mën a nettali bu ñu demee danañ sawar lool ci nettali ko ndax nag eh, li ñu fi fekk moom ak taalibe gu dëggu la sunu borom gën leen a teg loxo si barke bu maam Cheikh Ibrahima Fall. sëñ ñu ngi beral cant ak ngërëm. mboolem euh, équipe bu télévision ak euh, rajo bu Lamp Fall nga xamante ni sunu borom dogal na ni ñooñu euh, taxawu ba jotaay yu mel ni am si réew yu sor yi Serigne Alioune Thioune ñu ngi koy jeex bu baax a baax ak équipe bi nga xamante ni ñoo koy jàppale ñëpp rek si liggéey bi incha allah nga xamante ni tasaare njàngalem Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ci lay xëy ci lay gont kon nag mboolem waa Lamp Fall ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di bëgg lool kon ñu tàll loxoy ñaan. yëkkati jotaay bi jox leen daje incha allah yeneen jotaay Jazboul Mouride si yeneen i dëkk ci àdduna bi wërngal këpp wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin